الله سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant suñu boroom ñoo ngi koy bàkk di ko kañ ci tur yu sell yi nga xam ne suñu boroom am na ko ak melokaan yu kawe yi nga xam ne suñu boroom jagoo na ko ñu ngi julli di sëlmal suñu yonent muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ñoo ngi ñaan suñu boroom bu dëkkee ba waa xéewal ci kaw yonent ba mu am sahaaba allahu alayhim ajmain ñu ngi sant suñu borom bi mu defalaatee tawfiq ba ñu dellu siwaat ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquranul karim ci ndimbalu suñu borom ak yërmandeem ak mbaaxam ñu ngi jeexal démb suuratul qasas muy saaru màgg woowu nga xam ne suñu borom daf koo tuddee saaru nettali waaye di ci nettali li gën a am solo ci dund jullit ñu di ko ko nettali mooy qisasu saalihin mooy nettali jaam yàlla yu baax ya te ña ca jiitu mooy al anbiyaawu ña ca topp topp ci ña ca topp topp ci sunu borom subhanahu wa taala saaroo jeex na mu tàbbi ci weneen saar muy suratul ankabut suratul ankabut muy saar woowee nga xam ni borom bi subhanahu wa taala mi ngi ko tuddee jargoñ xam ngeen ni comme ni ñu ko waxee sunu borom moom mooy am sañ-sañu giñ ci li ko soob waaye seet na li ko soob ci ay rabit mu tuddee leen comme ni mu seetee lenn ci ay yonent mu tuddee leen xam ngeen al fiil am na suratul fiil mooy ñay suratul baqara mooy nag ankabut jargoñ namb arabat yamb ah yi demee noonu borom bi subhanahu wa taala tuddee na ibrahim saar tuddee na mu tuddee na Muhammad Saar tuddee na Nuux Saar Huud Yunus Yuusuf gis nga ko wa kadalika borom subhanahu wa taala tamit dafay sañ giñ ci lu ko soob xam ngeen ni giñ kenn du ko def ci lu dul suñu borom waaye suñu borom moom mooy giñ ci lu ko soob bal day giñ ci lépp sax fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna la qadirun saar wi suñu borom mi ngi ko tuddee rab woowu ñu tuddee jargoñ muy al ankabut nga xam ni moom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa joxe misaal mu am solo ci biir saar wi ci ak dundam dana ñëw waaye comme ni ngeen ko xamee rek moom xam ngeen du am kër moom kër jàmbur rek lay dëkk moom jargoñ day fekk ku dëkk ba noppi mu ñëw daal di cay tàbbal ak këram moom day ñëw ci sa biir kër wala ci sa biir néeg moom mu ñëw tàbbal fa këram waaye gis nga borom bi subhanahu wa ta'ala def ci xereñam moom jargoñ fi mu ne pour wan la ne la laay jooju ngeen fàttaliko woon ca suratu Taaha ba Muusa alayhi salaam Firawna kàccoor bi laaj fa man rabbukuma ya Muusa dañu ko rabbuna alladi aata kulla shay'in xalqahu summa hada borom bi subhana taala lu ne lu ne te nekk mbindeef borom bi moo ko jox mbind gam yayoo waaye daal di koy gindi nag ba mu xam fa muy jaar ba xam nu muy def ba dugg gis nga jargoñ bokk na ci technique yi ko suñ borom may day fekk kër jàmbur mu dikk fekk ab rux wala place mu def fa ay fiil fiil yi ñuy tuddee ay lënd gis nga lënd yooyu da koy ràbb ràbbam googu ngay seen du par hasard de fi mu ko ràbb fépp am na genn genre fiil bu sew koo xam ci biir ràbb gi lay jaar fiil googu moo koy jàppal weñ yi fiir googu moo koy jàppal yooyu pour mu koy mën a dundee kon rabbuna alladi aata xoolal jargoñ ni mu yéexee ni mu ni mu yambareek ni ni mu ni mu ni mu yonjoxee nga xam ne booy fël muy daanu booy ëpp muy daanu waaye rek kenn ku ci nekk rek sunu borom jox na ko jumtukaay yoo muy jël ba dund defe naa gënoon naa leer ci suuratu namli biñ ca nekkee kon saar woo mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala di wax ni a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim bismillahi ar-rahmani ar-rahim alif laam miim الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنكم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين سنو برام سبحانه وتعالى في تنبلي سار وما قوة سورة العنكبوت برام منكو تعمل ci arab yooyu nga xam ni moom la borom xam-xami tafsir yi tuddee al xuruf al muqattaa fi awail suwar comme ni ma ko waxee woon ci suratu shuara wax ko ci suratu al qasas wax ko ci saar yi ko jiit lu mel ni taaha ak mariam borom bi subhanahu wa taala dafa am saar yoo xam ne daf ko tàmbalee ay xaraf bi ci gën a tuuti mooy nuun ba ci gën a gudd mooy kaaf ha ya ayn saad xaa miim ayn siin qaaf alif lam mim sad alif lam mim ra ah alif lam ra ha mim nun sad qaf noonu nga koy toppee bari na lool sunu borom subhanahu wa taala dafay jël arab yi di ko tàmbalee aw saa ay saa comme ni ma ko waxee woon laa koy waxaatee maanaam fii nag borom xam-xam bu ñu ci dikkee daan ci def ay man-man ci di ko jéem a tekki rotul ci sunna ci benn riwaaya bu wér moo xam dafa nekk saxiixun gayru sarix wala mu nekk sarix gayru saxiix rotut bàyyi koo ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ni moom lam doon tekkil saxaaba ya doon na ko tekki wa kadalika fóore yi nga xam ñoo gënoon a dégg alquran te aboubacar jiitu ci ak omar ak aslan abdullah ibn abbas yi moo tax alxaafid ibn kathir ci tàmbali suratul baqara dafa wax ni arab yi day arab la yoo xam ni borom bi da koy tàmbalee saar yi waaye moo xam lam ca nam li gën a wér daal mooy abubakar ak omar ak osman ak ali daal ñoom ci seen jëmmi bopp kuñ ci masaana laaj lu muy tekki day wax ne yàlla mooy ki gën a xam lam ca nam mënees na caa déggee ni borom soo day wane ni kat arab yu dogat yii ci lañ composé alquran ci lañ ko tëggee te nit ñi ak jinne yi bu ñu daje woon mënuñoo tëgg alquran ju ni mel laa wenn saa wala wenn aaya wala lu ko nuroog moom te loola day ñun loolu moom lañ gën a taamu ndax loo xam ne ba ca Abubakar sëggee ba siggi loolu la wax Omar sëgg ca ba siggi loolu la wax loola doyloo nañ ko insha allah yeneen téere yi nag comme ni ngeen ni ma leen ko waxee téere dafa siiri bari na ci de kàggu sunni tey jii rek li nga xam ci ay kàggu yoo xamante ni aimatu salaf bàyyi nañ ko fi ci ay téere tafsir ëpp na ay téeméer wante ñaar téeméeri tafsir yu ñu xam yii xam nañ seeni tur te gisuñu leen yii xam nañ leen xam seeni tur gis leen waaye di nga ca fekk léeg-léeg ay wax yoo xamante ni daanaka taxut koo am solo lool te it nekkut loo xam ne njëriñ la dana bari suñu borom subhanahu wa taala mu ne alif lam mim mu nurale koog suratul baqara ak ali imran suñu borom mu ne ahasiba annaasu ndax doomu aadama yi dañoo njort ne dañoo yaakaar ni ay yutraku suñu borom daf leen di bàyyi rek boyal leen noonu an yaqulu ñu wax aman na gëm nañ yàlla génn ci ñàkk topp dugg ci topp rek ni gëm nañ rek tuub naa nekk julit wala lislaam laay dund rek wala sunna laay dund rek affaire bi simple wa hum la yuftanuuna te kenn du leen teg benn natt suñu borom mu ni déedéet tàmbali saar wii de mbokk yi tàmbali saar la wu màgg woo xam ni alquran sax lépp nag jullit bi ko war a teg nasba ay nay saa bu yeewoo di am lu muy tibb ak lu muy niitoo waaye daf ci am aay yoo xam man su ma ko mënoon tuddee ay lunette xam nit ki da koy saa bu yeewoo rek moom lay sol pour mën a xool alxuraan dafa am aay yoo xam boo ko seetloo ba sippaliko loolu lay jox nga xam ni kat nit ki saa bu yeewoo day soxla lu mel noonu te jii aaya ba wala yii aaya ci tàmbali saar bokk na ci ak yi koy gunge te mel ni moom suñu boroom ni ahasiba naasu nag nit ñi dañoo yaakaar te nit ñi buñ ko waxee ñu gëm yàlla lañ ci namm foofu xam ngeen ki gëmul yàlla moom kenn topp ko dara ndax la zanba ba'da al kufri ahasiba annaasu ndax ñi gëm yàlla nee na ñi dañoo yaakaar ni ay yutraku sunu borom dana leen bàyyi rek ñu ni gëm nañ ay jullit lañ ñi ngi dund lislaam wala ñi ngi dund sunna moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam mag la moo xam ndaw la an yaqulu amanna ñu ni gëm nañ rek affaire bi simple ñun la demal wa hum laa yuftanuna te kenn dina teg benn nattu a déedéet loolu moom mënta nekk suñu borom ni lii wane ni mënta nekk bokk na ci mooy wala qad fatanna suñu ñun seen borom wala man seen borom fitnaaloon naa tegoon naa ay natt ak i mettital ak i mbir yu tiis te doy waar alladina min qablihim ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci yoon wi ngeen ne gis nga yoon wi ngeen nekk di ci nab nab yi am na ñu leen ci jiitu woon ñoo xam ne yàlla mu ni fitnaa loon naa leen fitna yu metti fala yaalamanna allahu ngir sunu borom xamal ñu ni ndax du sunu borom xam ndax sunu borom moom aalam bi ma fi suduril alamin foofu borom xam-xami tafasir yi dañuy wax ni fala yaalamanna allahu li muy tekki mooy sunu borom daf nuy wan daf nuy wan ndax lim ni wanee mooy xam ngeen yàlla moom xam na kon fala yaalamanna allah du ngir yàlla xam ndax bu dee ngir yàlla xam kon dafay wàññi mafhumul muxaalafa bi mooy kon suñu borom balaa moo teg natt bi kon xamut woon xaasa lillah beneen bi ci des mooy kon day wane suñu borom kon bu tege woon natt bi du xam déedéet loolu amul waaye li wane mooy suñu borom ci boppam dafay wan ñaari jëmm jénn jëmm ji mooy yow mi nga xamante ni yaa naan gëm naa te natt ñëwagut lu ne mën nga kaa wax mën ngaa wax ni bu natt ñëwoon day di nga yem benn place dékk ko te fekk mbir ma du noonu kon suñu borom faw mu def pour wan la nga mën a natt sa bopp yow kon yow dañ lay wan yow ñaareel mooy ñun ñi nga xamante ni xamaguñu it nag bu ñu gisee koo xam ni yàlla natt na ko te man danay wax mbokk yi nii ku ma gën a am yaakaar ci moom mooy ku du soppeeku te bokk na ci mandarga yi wane ne diw ñi du soppeeku mooy ñu xool ca gannaawam gis borom bi teg ko ay natt yu métti natt yoo xam ni kenn weran ci wut ni metti na te taxu koo jaay ngoram taxu koo jaay pas-pasam taxu koo sànni diineem waaye keroog la gën a gëm ca lam nekk seetlu bii moom gis moom da ca bokkut ndax kuy xool rek di gis gis nga nii saa boo gisee ab nit bu yàlla jaarak moom mujj ku gëm yàlla di góorgóorlu ci diineem ci ginnaaw nga xool ay at suñu borom natt ko natt yu méttee métti mu muñ ko ba jàll gëmal ni kooku am nañ yaakaar ci nit ñi dul soppeeku la bokk waaye ñaareel moom mooy loolu formation bu ñuy yaakaar loolu la des ca kanam ndax nattukat mbokk yi coow li li muy bari bari bari bari nit ki fii ay nattu tàbbeegut ci kawam ay waxam daanaka taxut mu am solo loolu tamit ngeen bàyyi ko xel sunu borom mu ni wa laqad fatanna alladina min qablihim sa borom yàlla tegoon na ay nattookee fitna ñi leen jiitu woon fala yaalamanna allahu alladina sadaqu sunu borom mi xam ba noppi xamal la yow xamal ñeneen ñi ñi nga xam ne ñooy ñi dëggu ñi ñi nga xam ne ñu dëggu ñi ak am solo dëgg mooy koo xam ni bu naajee na nga mel ngay mel bu seddee na nga mel ngay mel bu tàngee ni nga mel ngay mel bu neexee kadalika bu naqaree kadalika al kullu min qadaa illahi wa qadari narda wa nafraxu bi qadaa illahi wa qadari dañuy gërëm ànd ak kontaan ci ni ko yàlla defee ndax noonu rek la baaxee nag sunu borom mu ni wala yaalamanna alkaadibin sunu borom it dana def li ñuy tuddee garbala muy lay comme ni ko imam doon waxee sànq gis nga dafa bokk min sunanillahi fil ard muy sunnatul garbala mu ni sunu borom day tame day tame rek di lay gis nga ñi nga xam ne ñoo gën a dëgër ci ngëm nattukaay yooyu moo tax gis nga coow li gis nga nit ñi ñu lay waxal yow diw moo baax moo bari xam-xam moo ko mën a leeral moo ko fasaaxa moo ko dégg arab moo ko dégg luxa ndax yooyu amul solo parce que yooyu du lenn lañ la ciy laaj bàmmeel nit ñi léeg dañuy fekk yi am solo sàgganee ko fekk ya ñàkk ya am solo sàgganee ko fekk ya ñàkk solo di ca di ca bëri bëri gis nga waa ji moo ko bari xam-xam ak moo ko dégg luxaat moo ko mën a arud ak moo mën a way ak moo ma lii amul solo parce que lii wane amul solo mooy suñu borom du la ko laaj malaaka yi duñ la ko laaj du la jëriñ bàmmeel insha allah li lay jëriñ leen rek la mooy la nga xam ne suñu borom xam na ko muy lu dëggu ci yow ndax allahu aalamu bi ma fi suduril alamin kon fa la yaalaman allahu alladina sadaqu wala yaalaman alkadibin alkaadibin mooy ñi nga xam ne ñoom kat dañooy dugg pour seet dañuy seet si bu ñu seet see fekk mu neex mu baax ñu toog waaye bu ñu seet see mu dëgër kat ñu arrière dafa na tafsir na ko suratul kahfi suratul hajj ah ba sunu borom subhanahu wa taala wa min annas man ya'budu allaha ala harfin ayo mi ngi noonu fa in asabahu xayrun itma'anna bih wa in asabatu fitnatun inqalaba inqalaba ala wajhihi xasira dunya wal axira am na nit ñu mel noonu wér na ci sunna ci buxaari ak muslim wala ci buxaari boog yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ki gën a metti nattu ci kaw suuf mooy yonent yàlla yi ashaddu nnaasi balaan al anbiyaau thumma alsaalixuuna thumma al amthalu fa al amthal ki gën a metti nattu ci kaw suuf mooy yonent yàlla yi gaa yu baax yi topp ca ya ca topp topp ca ña ca topp topp ca mu ni yubtala al rajulu ala xasabi diini am na beneen riwaaya ne yubtala al maru ala xasabi diini nit ki wala waaye suñu borom su koy def natt borom day xool kii diineem fan la toll mu ni fa in kaana fi diinihi salaabatun ziida lahu fi lbala su fekkee waa ji ku dëgër këng la ci diineem ab nattoon day metti toog te man nag sama nattu man doomu aadama man muy xalaat man ab seetlukat man damaa jàppoon ni yàlla ki mu gën a bëgg subhaanahu wa taala waru koo teg benn natt man loolu laa jàppoon man damaa jàppoon ni nit ki nga xam ne yàlla dafa defar ay mbiram yépp tegu ko benn natt reyul doomam yàqul alalam tegu ko feebar bu metti yàqul liggéeyam man damaa jàppoon ni kooku da waroon a nekk ki yàlla gën a bëgg nekkate mbir mi du foofu nekkate mbir mi mooy ki yàlla gën a bëgg kooku mooy gën a metti metti la ay nattu nekkate ki yàlla baaxal moom la yàlla mettil ay nattu man yuridillahu bihi xayran yusib min yent yàlla bi ne nag ku nam yàlla nammali aw yiw faw mu mosal la ay natt man yuridu llahu bi xayran yusib minhu yent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yàlla di du dañ di nattu ab jaam di ko teg ay fitna te nag kéemtaanu suñu borom gi mooy am na nit yoo xam ne yàlla daf leen a bind ñu nekk nitu natt nitu natt mooy koo xam lu mu jógee rek tàbbi ca la fi des loolu day faral di am loolu moom ku seetlu gis ko ci jaamu yàlla yi koo xam ne moom tolof tolof bu mu jógee rek tàbb ca ba ca des tolof tolof bu mu jógee rek tàbb ca ba ca des amaan na kooku ñu ngi rafet njort ci moom bu dee ku gëm yàlla la te baax yent yàlla bi nee na yàlla man day teg nattu nit ki fu mu jógee tàbb ca la des fu mu jógee tàbb ca la des bu faatoo gis na perkaal buñ ko sàngee ni mu weexee moom noonu la aw fooyam di weexee bàkkaar bu ca nekk nga xam ngeen ni natt yi dafay gësam bàkkaar yi parce que ni ngay fekkee mango bu jor nga gësam mu wat natt yi ak feebar yi moo tax yent yàlla Musaa na seeti ko fee naa ko la ba'sa tahurun insha allah ali da du dara amul solo da ngay ruusal say bàkkaar da ngay fóotu moo tax kooka ak ñaanam day nangu donte boo ko ñaanalee ba pare waaye mbokk yi nattu lu am solo la ab jullit di ko bàyyi xel sunu borom mu ni ah am xasibatum an tutraku wa lamma yaalami allahu alladina jahadu minkum xanaa da ngeen yaakaar yàlla da leen yàlla rek bàyyi leen noonu rek te sunu borom du xam ñi nga xam ne ñooy jihaadkat yi dëgg notanteeg seen bakkan notanteeg fitne yi gëm ni yàlla moo leen ko teg ji ñu ko ma sàmm ji ñu ko ma dem sunu borom mu ne am xasiba am xasibatum an tadxulul janna ba tax da ngeen yaakaar ne àjjana moom da ngay waaxu rek ba yegg rek abdulillah di daagam daaga ba yegg si ji dugg kon day yomb bu mu ëpp sunu borom ne déedéet wa lamma yaalami allahu alladina jahadu minkum wa yaalama assabirin te yàlla du leen natt ba tame segg sett ñetti génne ñi nga xam ne ñooy jihaadkat yi dëgg ak muñkat yi ah sunu borom mu ni natt woon na ñi ñu jiitu woon مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله mbokk yi xoolal yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ah nga xam ni ñu nit ñi ñëpp moo leen gën sallallahu alayhi wa sallam wallahi suñu borom day kontaan ci kontaante ak yonentam waaye day mer di sàññ ci merab yonentam bëgg ko lool gënale ko ci yonent yëpp waaye teg ko ci ay natt loo xam ni man laahu bihi alim kon fa man duuna muhammad lan nga xalaat ci moom kenn ku nekkul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aaya yi ñëw ci natt ci alquran bari na bari waaye yoo xamante ni buñ ko doon dajale dama jàpp ne buñ ko bëggoon a tudd sax ngir isti istinaasee ko ci aaya ji day jël suñu waxtu lu bari waaye ku dellu ci téere bi di nga fekk aaya yu bari yoo xam ci lii lay wax wa zulzilu xatta yaqula arrasulu walladina amanu maahu mata nasrullah mbir yi metti lool ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dara gënul metti dugg ci biir kër nit tuumaal ko ci biir njabootam nattu tuumaangoo ah soppeb soppeb yàlla mooy Aïcha di soppeb Muhammad Muhammad di soppeb sunu borom ñu tuumaal ko da doon njaalo muy naqar woo xam ni kenn ci magi salaf yi nee na jamono jooju ne fàttaliku naqar wu ñu dund wu gën a rëy naqar wii ndax booba naqaru yonent bi faatu na ñëwagut benn ngóob tuumaa ngóob bu nekk jël ca benn misaal rek doy na yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam daa toog weer ñaari weer këram cin du fa tàkk tàndarma lañ doon lekk ak ndox te bu sooboon sunu borom bu ko bëggoon moom yonent mu ñaan ko sunu borom sunu borom soppil ko aw montagne ci montagne yi mu nekk dahab di or wallahi al waaye moom moo taamu googu tumuraanke di xiir di ma di sonn di gëmmentu di noppal yonent bi alayhi salaatu wasalaam yabal na juróom-ñaar fukki ay saxaaba yu mu fonk lool ndax ñoom ca alquran lañ bokk jànkati alquran yi ñu rey leen rey wu ñaaw bu mer ca lool mer na la koy wane mooy toog na weer di def xunuut ci sabab soosu sax ci la borom xam-xam yi fiq yi jóoyoo ndax xunuut bis bu nekk lañ koy def ndax fajar dinañ ko def duñ ko def ala kulli xaal wala masalam fiq la ba suñu borom naa ko laysa laka min al amri shay mbir mi sa mbirum borom sa sa mbirum borom waaye yow moomoo ko bàyyi koog sa borom sa borom bu ko soobee sax mu baal leen yonente bi alayhi salaatu wasalaam damm nañ bëyam gaañ nañ ko ci jeune keroog Uhud mu daanu ci kàmm sallallahu alayka ya rasulallah yonente bi alayhi salaatu wasalaam li ko dal ci ay xeetu nag su ma ko doon lim benn benn boo delloo ci séer ahlu siyar dañ ciy wax yu bare bari saxaaba ya noonu la taabiun ya noonu la taabiu taabiun ya noonu la kon mbokk yi ci gëm yàlla dafa war a bokk ci programme dundam mooy mu gëm ni nattu yi faw mu ñëw nattu yi nag tijuwaal lay doon wa tilkal ayyaamu daawiluha bayna annaas tey day ñëw yàlla rey sa baay fekk nga àggoon ak moom fu sori rey sa yaay mbaa sa doom mbaa sa soxna mbaa ngay liggéey ba yàgg liggéey bi yàqu mbaa nga yar kër kër gi tàkk maa nga amoon lool nga xëy xëy ndeysaan sunu borom nangu lépp mbaa sunu borom teg la feebar bu métti allahu akbar gis nga nag foofu nag fii la mbokk yi fii la jaami yàlla yi nag di manantee natt bi day ñëw métti lool ba jéggi dayoo ba ci li muy yëg moom ci métit moo xam feebar la moo xam tawat la moo xam euh, lu mën a doon moo xam feebar la moo xam tawat la moo xam ñàkk la moo xam ñàkk la ila axiri nit ki li muy yëg ci aw méttit mallahu bihi alim yàlla rek rek rek moo ko xam waaye dana ko muñ dékkoo ko ci dékkin woo dékkin góor gu gëm yàlla kenn ci magi salaf yi nee na man de saa ma toogee woon yàgg nattu ni rës ci sama kaw muy dama koy tëb fee rek wàcce ko ci ñetti place daal di noppalu dem jàll ci leneen yan ak yan ak yan muy dama naan waaw nattu bii de yàlla moo ma ko teg te gëm naa ni yàlla moo ma ko teg ma xam ko fas yéene ko muñ ko dinaa am tiyaaba tiyaaba ya may xalaat tax na sama xol seet beneen bi mooy natt bi mënoon naa ñëw yóbbaale sama diine te man lu ma ñàkk te sama diine bokk ci sama diine lu ko gënal mu ni ma sant yàlla ca loola beneen bi ci des mooy damay xool natt bi mënoon na fee gën a metti effectivement nit ki lu ko dal rek mënoon naa gën a metti xatta dee mënoon naa gën a metti ndax mën ngaa dee fekk dee gu ko gën a bon gën koo ñëw mënoon nga koo dee mu ni su ma ko wàccee ñetti barab yii rek damay daal di noppalu ma daal di jàll ca leneen man mii am mag nekkale na ma fii ci suñu ñi ñuy dund ba tey nga xam lu yàggul te suñu mag yi nekk fii ñoom loolu sax dañ koo gëmoon nga xam ni man na am na ci ñoo xam ne sunna sax leerul seen bopp da nga ciy gis ku toog ay weer amul benn natt muy ñaan yàlla yàlla wàcce ci kawam benn natt ndax day jàpp ni suñu borom daf koo jéppi moo tax andiwul natt lii moom am mag moo ma ko nett ñun moom waxuma la ñaan sax ab nattu ñëw ndax daa gëj a ñëw déedéet ñun dañuy ñaan bu nattu ñëw mukk loolu mënul nekk ñun jëm sax a ñaan bokkul ci ñaari sunna yi ci li ma teewal wallahu aalam ci li ma jot a teewal bokkul ci ñaari sunna yi nit ki di ñaan natt mu yegsi ci kawam déedéet waaye kay natt bu yegsee yàlla may la ngëm goo ko mën a dékkoo loolu lañ xam ci sunna nga am solaaba dëgër ci sa diine feebar la dal fàtt ni ko yent yàlla ayuba alayhi salaam yaa moom ko gën jërul toog ndax maa ngi foog ni lool na sax na sax ngëm xalaatoo sax di tëkkale sa bopp ak yonent yàlla ayuba ayuba alayhi salaam mbokk yi sunu borom d'accord dina ñëw insha allah ci dama koy junj ci sur saat bu ñu àggee ko dama koy ishaara ko istinaase ci borom soo tax dafa nattu feebar bu metti feebar boo xam ni inda taxqiqi min ahli tafsir ñu ni feebar bi def na fukki at ak juróom-ñett mbokk yi xool ab yonent yàlla ak ay yuba yàlla di ko tëkk ni'amal abdu waaye jaam bu ma neexa ngi nii waaye man yàlla xoolal yàlla ku mu xool ni kii neex na ma ni'amal abdu innahu awwab suñu borom teg ko natt natt bi feebar bi metti lool ayuba ku bëreewoon alal la ku bëreewoon ay gàtt la ak i jur jur gas naax saay gàtt ya naax saay sama kalaas bi nitu jamono ji ñi nga xam ni ñoom bu bu fitna dikkee ñu daw bu neex neex dikkee ñu ñëw gaa yëpp daw ñenn ci ay soxnaan sax daw mu des soxnaam su njëkk ku am doom ku mën a muñ ku ragal yàlla kuy sàmm kóllëre te lu am solo ngi doon ci doomu aadama sàmm kóllëre bi muy neex man ak yow la woon lu mu metti metti metti metti man ak yow lay doonaat insha allah soxna si di ko muñal feebar bi metti lool xuraabaat yi jot nan ay sax dana dem ci ay kërib la ndax ak dafa xeeti feebar yoo xam ni ak xeeti natt yoo xam ni ak xeeti manqué manqué ay bi yoo xam ni yàlla daf cee yone defal yonente bi yonente asma loolu la ulama al aqida di wax te loolu mooy lu wér feebar daa metti woon na loolu ma jéggi dayo ayuba alayhi salaam foo ko fekk rek mi ngi sant borom bi subhanahu wa taala suñu borom moo ko xam moom ayuba xam ayuba teg ko nattu ba pare bàyyi ko nii rek sunu borom naan yàlla na nga desalal sama ngëm xam ngeen ñaan gi ñëw ci suuratu saab lan moo tax ayuba ñaan ah anni masan ya dur wa anta arhamur rahimin ayuba da ko muñal ba yittewoon sa ñaan yàlla mu teggil ko nattu bi moom la yittewoon doon des benn bis ñaar la ayuba jiiteel kenn ki naan ah ayuba mi moom moom nattoon bu yàgg bi ab yonent kii ndaw yàlla da kaa jéppi ci dama yaakaar yàlla da ko nar a alak affaire bi ni mu yàggee te mu dem yonent moom mu doon nituk loolu xanaa yàlla bëgg na ko dana ko teggi affaire boobu marqué xolam nag muy dem na ba nit ñi di sikk sàkk ndax yonent la ak du ma yonent dem na ba ñuy jàpp ni yàlla daf maa jéppeeg daf maa jéppiwul ah sunu borom anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin kon lii rek la wax anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin gisoon ngeen ko ci suratul anbiya dina ñëwaat suratul saab allahu akbar benn bi soxna si génn di ko wutale lu mu lekk soxna si xaw a yàgg mu jàpp ni soxna si da koo tongu gàddaay ko xam nga li gën a metti mbokk yi mooy feebar wala nga ñàkk wala nga sonn wala nga ne ci tolof tolof ñu ne xamul ñëpp daw te wallaay lii mooy aaday nit ñi tey dañuy ànd ak yow ci bi ngay am ak bi ngay man boo ñàkkee ñu dem seeti keneen xatta léeg-léeg nga dégg soxna si ni may ma sama baat ma dem sama parce que lii mënatuma koo dund lii gis nañ ko bi ummi aayun naa ndaw si yeex a ñëw ayuba mer yëfi doomu aadama jàpp ko mu ne ndaw si bu dikkee dinaa ko dóor téeméeri yar suñu borom ne ko oh kay baax na defe naa loolu nee nettali naan ci xisab Suleymaan ak kilifa ni mu war di teeyee balaa bañ a gaaw a wax bi mu dikkee moo tax suñu borom ne ko ah ndaw si kat deful woon li gars yi def de waxul xusa dérdatan fagrib bi jëlal téeméeri bant bant yu tolloo bant bale xam nga téeméeri yar ko bant bale bant bale bant bale ba muy téeméeri nga jël ko ni ko ko tay ci digg ginnaaw bi tay bu sepp dóor nga ko téeméeri yar wala tax na mbin la jeex na gis nga loolu sunu borom ni ko urkudu bi rijlika hada mughtasalun baridun wa sharab loolu dina ñëw ci tafsir suuf sax insha allah rabbul alamin kon ayuba alayhi salaam am na toomu ngoog mbokk yi am na ay jaami yàlla ca ñu yàgg ña ñoo xam ni yàlla mi ngi leen di nattu ahlu siyar ku mel ni imaamu zahabi boo demee ci siira aalamin nubala mi ngi nettali benn waay bu ñuy wax abu qilaaba kenn la woon ci taalibi abdullah ibn mas'ud yi ñu ko jege lool abu qilaaba dafa dem ba yàlla daf ko nattu loxo yi yàqu tànk yi yàqu musilmaxa teg ci loxo yi yàqu tànk yi yàqu musilmaxa benn waay nee na moo dem ba ci àll bi mu daal di koy romb bi mu ko rombee fekk moom ak doomam ñoo doon ànd mu dem ba ci digg àll bi mu ne ma romb ko imam Zahabi mi ngi koy tële ci siira nee na bi ma ko rombee ma fekk ko ci melokaan woo xam ne daw na yaram metti na lool ma laajte kii kan la ñu ne kii mooy Abu Qilaaba saaxibu Abdullah ibn Mas'ud nee na ma ñëw fekk moom kese mu toog ma laajte mu ne mooy Abu Qilaaba ku ku la indi fii mu ne ko sama doom laa àndaloon mu ne ko ana sa doom mu ne ko man kay mu lay gisatu damaa toog toog xamatuma fu mu nekk wëral ma nee na waa ji dugg di ko wëral ndekete booy xale bi dafa dugg ci biir manding mi rek àll bi rek gaynde yi lekk fàdd ko foofu lekk ko moom léegi waa ji leen bi ma ñëw ba fekk ñu ngi xottaate yaram yi morso ko daggat ko ay morso maa ngi am problème kii ak natt yu nekkee ndax ñeme na maa ñëw di ko waxaat beneen natt bi di ko ci tegal mais xamu lu may def ma xalaat xalaat xamu benn pexe ma ne naa waxee teg seet rafetal waxin bi nee na ma ñëw di ko mocc di ko fàttali yàlla di ko fàttali yàlla di ko fàttali yàlla ba àgg ci natt bi nee na bi ma ko waxee mu ne fa shahiqa shahqatan thumma maat bi mu ko waxee dafa xëddandiku rek noonu mel ni du onk onk gu foor rek mu ni foofu la yem benn waaye ngi nii benn ndongo Abdullah ibn Mubarak dafa ànd ak Ibn Mubarak romb waaj waa ji moom tànki dafa yàpp mi ngi silmax mi ngi am ay xeeti góom yu nekk ci yaram bi ndongo Abdullah Mubarak dégg ko mu naan alhamdulilahi rabbil alamin man de dekk li ma yàlla defal ci xéewal defalu ko kenn ci kaw suuf taalee bi ne Abdoulaye Mbar ni ko waaw kii moom ban xéewal la ma yàlla defal nañ defalu ko kenn ci kaw suuf Abdoulaye Mbar ni ko nañ tur nañu laaj ko ko ñu ñëw ci waa ji daal di ko koy laaj bi ñu ko ko laajee mu ni gis nga dëkk bii ngay seen man fa laa dëkk lépp ëpp ay yéefar lañ te man yàlla may na ma ngëm yàlla kon li ma defal defalu leen ko mbokk yi xool ab jullit fi muy xoolee nag jullit di ko war di dékku imaam Mouhamed Hassan hafidahullah wa raa al-Masri mi ngi nettali ci benn kasetam bu mu tuddee risalatun ila al-asirati al-bayda message bu ñu jëmale ci ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci lalu feebar al-asirati al-bayda mooy morso yu weex yi ñu lay muur mu ni foofu ci Misra dafa am benn jigéen ju gëm yàlla bu feebaroon nee na ndaw si feebar bi dafa metti ba yaram yi ci biir yaram bi moo ko nëx nee na seeti naa ko hôpital ñaari yoon xam nga loolu kon yàggut lii moom jamono bi ñuy wax nii la. nee na moom ci jëm bopp mu ni dem naa hôpital ñaari yoon seeti ko mu ni bi mu ñëwee médecin yi dañ ko wax ni ko ku ko seet si bu laal sax laal bi mu tëdd laal bi bu ko laal parce que yax yi dafa fënax ba foo laal mu yàqu xolam dem ba sa yax fënax yàqu nee na boo xool ci yaram nag ñu ko monté ay rapport nee na damaa toog ba mu yàgg ñu yabal ci man ni ma cheikh bi dafa ndaw si dafa bëgg nga seet si ko hôpital mu ni ma ànd ak ñenn ci ndongo yi dem seeti ko mu ni wallahi karab ndaw si la doon saa sàkku ci man ma fàttaliku waaye keroog maa fàttaliku ci moom mu ni bi mu ñëwee ndaw si di ko sàkku ci moom mu ñaanal ko ngëm yàlla moom na ngëm yàllaam rek des mu di ko laajaale masala mbokk yi xam ngeen man masala la ko doon laaj nee na moom am na alal te jotul aj te gëm na ni même ak lu mën a am balaa dee dafay aj nee na ndax mën naa dem aji kan mooy aji kii nga xam ni moom dañuy tere sax nga laal lalam bi mu tëdd nee na moom day aji médecin ni ko maître boo koy buute da ngay dee mu ne même bu koy dee ma dee ci yoonu aj ko ndax yàlla xam na ne ne sama biir xol ñu jëm kaw jëm suuf mu dëgër ñu mocc jëm ku ñu yaakaar ne bu ci waxee man ci dama dëgër ci lim dëgër mu ni keroog bi ñu ñëwee dañ koy yóbbu ci vol bi pour mu dem aji moom médecin yi dañoo def nii di xaar mooy yëngal na lam bi pour mu dee loolu lañ doon xaar yàlla mi nga xamante ne ma ala kulli shay'in qadir moom moom moom xam ngeen yàlla xam ngeen nga ko woo melokaan suñu borom defal ko jàppandal ñu root ci affaire yi tëral ko ci lal bi dugal ko ci avion mu dem ba aji mu ni mu aji dellu si waat nee na bi mu dellu si waatee sàkkuwaat ñaareel bi yoon ma ñëw seet si waat ko ci hôpital mu ne bi ma ko seet si waatee ñaareel bi yoon amatul ay fan ci lañ ma wax ndaw si faatu nii la deeyaale ak ngëm yàlla gis nga misaal yi boo ko doon joxe da ngay joxe lu bare bare lu jéggi dayoo ci nit ki façon nag bu nekk feebar la ñàkk alal la lu lu ne sa doom dem allahu akbar xoolal yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam kan moo ko gën a yee ci am doom ju góor nga xool doom ju góor ni ko nit ñi bëggee dëgg la am na lis état bu ci wooy toll islam da ko fay tere di gën a bëgg doom ju góor bàyyi doom ju jigéen loolu la ñuy tere waaye doom ju góor am na fu muy taxaw bàyyi islam xam na loolu yar bi mu ne yar xam looloo tax mu dañ ci yar yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ay doom di judd di faatu ba mu des kenn muy Ibrahim yonent bi bëgg na ko fañ ko joxe mu fay nàmp ñaari yoon dafay dem par bis ndax rek mel ni ko ko gëmewut fukki weer ak juróom-ñett ala al ashhar min aqwal ahli siyar xale bi faatu keroog bi mu faatoo sallallahu alayhi wa sallam li muy dëgër dëgër dëgër nga xam ne kuy dëgër fit moo la gën a dëgër fit kuy gëm yàlla moo la gën a gëm yàlla kuy jàmbaare moo la gën a jàmbaare keroog rangoñ yi fii la doon jaar di wadd mënu koo téye sallallahu alayka ya rasulallah benn saxaaba xool ko ni ko yent yàlla bi yow yaa ñu doon téere joob mu ne ko al aynu tadma wal qalbu yaxzan wala naqulu illa ma yurdi rabba wa inna bi firaqika ya ibrahima la maxzunuun bët bi de mi ngi nii di génn rangoñ mënuma ko nag mënuma ci dara mi ngi nii di génn rangoñ man mënuma kaa téye wal qalbu yaxzan xol bi ku ci dugg tey dëgg dëgg nag neexul ba neexul waaye aw tiis mi ngi ci waxul naqar de ndax kenn du naqar lu la yàlla dogal aw tiis mi ngi ci waaye nag wala naqulu illa ma yurdi rabba lii wane ni gërëm nañ dogalu yàlla mooy sunu làmmeñ li nga xam ne li ibn al qayim naan as-sabru xabsu nafsi an il jaza wal lisaanu an tashakki fexe ba làmmeñ bi du wax lu muur te wax mu ne wala naqulu illa ma yurdi rabba duñu wax lu dut lu yàlla kontaan ànd ak loolu lépp nag wa inna bi firaqika ya ibrahima la mahzunun teqalikoo gi ma teqalikoo yow ibrahima tey jii tiis na ma torop ndax doom moo mel noonu loolu mooy yërmande moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ni al allaama fudayl ibn al ayad bi doomam ji ali ibn fudayl faatoo ñu koy suul ñu gis ko muy ree yent yàlla bi doomam faatu ñu gis ko muy muy jooy kon kan moo ci gën a taxawee maqaamul ubudiya ñu ne laa shakka même bu dul kenn du tëkkale yonent bi keneen yonent bi moo gën a taxawee maqaamul ubudiya ndax maqaamul ubudiya dafa laaj place bu ne lan fa war a def nga def ko fa fudayl ibn al ayad lu mu gëm gëm gëm yàlla barab bu ñuy suulee du barab bu ñuy reetaane ak loo gëm gëm dogal suñu borom kon gëm dogal suñu borom mooy nga def takayyuf waaye def li ñuy tuddee maanaam yërëmtalu ci rëq fa bi nga xam ne yàlla def na ko ci diggante nit ak doomam te yonent yàlla sa sallam moo gën a matale ci barab yooyu maqaamul ubudiyya sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi nattu mi ngi noonu léeg-léeg nga nekk ak sa soxna bëgg ko lool mu féete la koo xam ni xaw tuuti kon daanaka buy dee sax dalaa war na mën a yóbbaale fekk yow gërëm nga loolu yow ndax ni ngeen doon dundee suñu borom dikk ni ko coppe ci yoon wa bil aks tamit sa borom kër tamit kadalika noonu sa doom noonu say say wayjur kadalik yu yëpp ci xeeti nattu yi la suñu borom mi daa leen natt ci suratul baqara bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wat thamarati wa bashir as-sabirin as-sabirin hum alladhina idha asabahum musiba ñoom qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loolu du dëkk kese de natt bu ñëw ni rës ci sa kaw ne ah yàlla de moo ñu ko joxoon moo ñu ko xañ muy alal muy bakkan muy doom muy jabar muy jëkkër ila axiri aay ji mbokk yi boo gisee ñu taxaw ci as ndiir mooy jamono bi ñu toll dafa bokk ci point yi ñu seytaane ma ne mooy bunt bi buntu natt billahi alladi la ilaha illa hu mbooloom junni personne di dem yàlla wàcc ñoom ay natt genn wàll ga dëpp tourné ndax duñ ko mën a dékku seen ngëm yàlla du ko fekkee hatta al an am na ñoo xam ne dama ni la ñàkk a tax ñu ñàkk ñu jaay seen ngor jaay seen diine yonent yàlla bi alayhi salatu wasalaam mu ni des na tuuti yusbihu rajulu muminan wa yumsi kafiran yabiu diinahu bi aradin qalilin min ad dunia da ngay xëy nekk gëm yàlla génnaale ko sa kër bala ngaa dellu si nekk yéefar xullas lu tax ñàkk gi dafa ñett ba mënatoo koo dékku nga jaay sa ngor jaay sa diine jaay sa dignité ngir lan ngir am loo lekk ngir am loo naan ngir yu demee noonu tey jii nit ñaa ngi koy dund da nga gis nit koo xam ni wallahi yàlla da ko baax muy góorgóorlu ci diine di góorgóorlu di jàmbaare waaye ñàkk tax mu ñàkki feebar tax mu saalit yàqule tax mu jaay ngoram wala mu jaay diine li may wax parce que bu la dalagul am na masala yoo xamante ni buñ koy jàng buñ imaginer man dalaguma rek nga ne ah kon naa bàyyi mu jàng fekk déedéet mi ngi yegg si ñaareel mooy am nañu mu daal ñu dut yow ñoo xam ne dañu leen a gis am nañu jaay seen ngor jaay seen diine ngir loolu waaye ca wet ga da nga gis nit ñoo xam ne wallahi ñu gore lañ mbokk yi dañoo gore seen digganteeg seen borom waaye dañoo gore seen digganteeg ñu ko séqal lu mu metti metti metti dañ koy muñ xatta yatiya allahu bi amri ba yàlla dikk ak mbiram kon natt yi mbokk yi faw ñu di ko bàyyi xel ci lépp lay dikk nag alal ju yàqu mbay mu yàqu insécurité xiif ila axiri yi façon natt yi nga xamante ni moo am ci kaw suuf gis nga seytaane nag comme ni ma leen koy misaale gis nga seytaane moom xeebul dara moom boo fa kastaloo nga damm bëgg na boo rëqee bëgg na boo fa kastaloo nga daanu kese bëgg na loo am moom bëgg na moom ñaari yi lu mu ci am baax na moom l'essentiel na am aslëf rek gis nga bu la xëccee nday jor càmmoñ kanam gannaaw nga dëgër du xaati de ndax saay saay bon la fee lay jonkon di xaar ndax xam na ni booy mer muy yegg si parce que bu nit meree day tàqalikoog sagoom deretam di daw daw joo xam ne normalut su ko defee seytaan day daw ci deret comme ni ko yonte yàlla waxee boo jaaxlee mu dugg si boo ñàkkee mu dugg si boo amee problème mu dugg si boo yàqulee mu dugg si bu la ñàkk dikkalee mu dugg si parce que bunt yi xam ne xaalatu doon day gaar doomu aadama ci mooy day fa day am faiblesse ngëm yàlla gi lu mu foor foor foor ñàkk da koy rësal tuuti yàqu la da koy rësal feebar da koy rësal dee da koy rësal jamono boobu rës nag chira ci la am sa ngëm foofu na nga war a gën a góorgóorlu ci say ibadat moo tax suñu borom subhanahu wa taala dañu digal nii ndax da ngeen yaakaar ni mbir mi da ngay wax gëm naa rek mu simple mu jeex déedéet faaw yàlla indi ay nattu nag nattu yi di tegaloo rek nag ngis waa joo xamante ni fii diine yi salaaba dafa am ak ndëgëray ci diineem qul Moussa alayhi salaam yonent yàlla nee na amul ku ñu lor ci jaamu yàlla mu toll li ñu lor Moussa moo tax naan yaa qawmi tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah xoolal suñu borom mu ne laa ahada asbara ala allah loolu la yonent bi wax amul ku dàq muñ suñu borom ndax xool yi ñu koy waxal yëpp kon nit ki mbokk yi faw ñu tàggat boppam ci muñ imam ahlu sunna wal jamaa ahmad ibn hanbal nee na baatat muñ suñu borom répété na ko quatre-vingt-dix-neuf fois ci alquran imam ibn al qayyim taalif na benn téere tuddee ko oddatu sabirin téere mu jallat bu mag la ci sabr rek lay wax ah cheikh al islam ibn taymiya lay wax ne bi sabri wal yaqini tunaalu al imamatu fi ddin gis nga muñ ak wóolu yàlla sax ci dëgg nekk imam nag yoo xam ne suñu borom daf lay bëgg ñu lay bëggee ci almalawul aala li koy may nit ki mooy asabru wal yaqin moo tax yàlla teel cee yar yonent bi fasbir sabran jamila wahjurhum hajran jamila fastaxi sabha al jamil xam ngeen ñetti seex yi ñoo bokk ndey ak baay ah asabru al jamil wal hajru al jamil wa sabhu al jamil yii yëpp benn bu ci nekk ñoo bokk ndey ak baay ndax nit ki muñ na ba noppi ibn al qayyim mu ne lii wane ne muñ nga mooy da ngay téye sa jëmm ji ba doole ji mu am wala pexe mi mu am war na mën a révolté mu ni doo ko def moo tax mu ne laysa shadidu bi sura mbir mi war na ma mën a fay war na ma mën a révolté waaye dama koy muñ ngir yàlla wal kaadimina al ghays loolu muñ mooy tax nit ki man ko gis ngeen ci xaaruun gis ngeen ci xaaruun gis ngeen ca ca ca ca suuratu fusilat idfa bi lati hiya ahsan sunu borom mu ne wa ma yulaqaaha illa alladina sabaru mbokk yi mbaa xam ngeen ni muñ kat ku ko nekkul jikkooy baax doo ko am abadan loolu dafa safaanoo ak doxalin suñu borom bi muñ ku ko mën amal garanti ci ni man awma jikko yu baax munul nekk ndax yàlla jikko yu baax yu rafet suñu borom du ko jël ku dul muñ kat mu dañoo dañoo dañoo juyoo mi ngi mel ni sawar ak ndox mun ñoo ànd ñoom ñaar parce que jikko yu baax yi liy tax nit ki man koo am ba di muñ di jéggale di jëlale di baale liy tax nit ki man koo am mooy muñ te benn borom xam-xam di nitili benn buur dafa amoon ay gan surga bi di di séddale soos mu ngi séddale soos ba yegg si ci benn waay rek soos bi daal di këpp ci xam naa daraay buur buur jàpp ne kii day dof dof lu pourquoi muy taqal sama yére yi rek jug woo sa yaat bi rayal ma kii xam nga buur moom rayal ma dakaa yomb moom moom yëgut lu géej gii riir waaye ba mu dajeeg yàlla rek bu ko defee gaa yi nar koo rey mu daal di koy jàngal ni ko wal kaadimin al ghayz daa def nii loxo yi sunu borom de mi ngi tagg jaam yi nga xam ne ñoom bu ñu meree ba futt dañuy muñ ñu nëbb seen mer buur bi ni tekk mu ne ko wala aafina an innaasi wallahu yuhibu almuhsinin ak ñiy bale yàlla bëgg na ko rafetal mu ne ko lii wane ne aatawtuka mooy aataktuka goreel naa la génnal nga dem sa yoon aka bëri loolu lu am ci jamonoy salaf ma nit ki dem ba yëg ni kii tooñ na ma ba tooñal ma ma baal ko ngir yàlla subhanahu wa taala muñ ko te maa ko yilif moo tax suñu borom mu ni bàyyi leen xel loolu ahasiba annaasu an yutraku ndax dañuy wax ni gëm nañu rek suñu borom bàyyi leen loolu an yaqulu amanna ñu wax ni gëm nañu waxum laa yuftanun kenn du leen fitnaal suñu borom mu ni déedéet wala qad fatanna alladina min qablihim suñu borom fitnaaloon na ñu fi jiitu woon fa la yaalamanna allahu alladina sadaqu suñu borom kat dana ràññeet leen ràññeet leen woon ñun ñu xàmmee ñu dëggu ñi wala yaalamanna alkaadibin ak ñi nga xam dañuy kàcc rek ngir mee neex ñu ñëw buy naqari ñuy dem suñu borom am xasiba ndax dafa njort yaakaar ni alladina gaa yi nga xam ne yaamaluuna dañuy def ak sayiaat ak caay-caay ñi nga xam ne ay saay-saay rek lu leen neex la ñuy def bu yàlla nee fii la nga ni bële la bu mu ne defal lii nga def la ca des ndax ñooñu dañoo yaakaar ni ay yasbiquuna dañu ñu rëcc ah saay-saay bi nga xam ne moom dafa topp ci bànneexam lu ko neex mu def suñu borom mooy ndax kooku dafa yaakaar ni ñoom dama ñu rëcc déedéet saa abon na lool te yées maa yaxkumuuna ni ngeen di xalaat ak ni ngeen di àtte kii àtte àtte bi mel noonu jàpp nañu mën nañoo rëcc yàlla déedéet wala taxtabanna allaha gafilan amma yaamalu zalimun ah bul yaakaar mukk ne yàlla tooñkat yi li ñuy def da koo yëgul wala da koo mënta faj wala da koo bëggul a faj déedéet innama yuaxiruhum li yawmin tashxasu fihi al absar loolu mooy laa yasbiquuna mënuñoo rëcc de ndax yow xam nga yàlla moom su doon jekkonteeg nit ku naan jekku naa damay bu ma la jekkoo rek tey ma def la musiba bu fekkoon yàlla day jekkonte laa wax te jekkonte wu da ngay ne da ngay ne la yow fu téeku nga ba set ni baax baax paaral ba wut fi nga tëdd xamoo sax lu ngay jiir nit sunu borom doon bettaate foofu la lay bett waaye sunu borom lu muy dox di bettaate mel ni ku am ay manqué manqué ki ayib wala mel ni ku amut kàttan da lay bàyyi nga nekk ca la nga nekk fa ida jaa ajalullah su diggab yàlla bi dikkee allahu akbar gis ngeen qaaruna jërul guddal foofu gis ngeen firawna gis ngeen haamaana gis ngeen asxaabu rassi gis ngeen qurunan bayna dalika kathira ah ah wa kullan darabna lahu al-amsala wa kullan tabbarna tatbira gisoon ngeen ko ci suratul furqan borom bi mooy zul quwwati al-matin borom kàttan gu mat gi borom kàttan gu dëgër gi sunu borom mu ni man kaana képp koo xam dafa nekkoon yarju di yaakaar liqaa allahi daña dajeg yàlla fa inna ajal allahi digab yàlla bu di àllaaxira la aatin dana yegsi dina yegsi de ku gëm ni dana dajeg yàlla ak am solo mbokk bu nu doon suulandoo sax nag mu neex bu fekkoon dañu doon suulandoo wala ñu dajee ndoog suñu borom nga xamante ni moom boo mënta yërëmtalu sax am ku jege foofu di la yërëmtalul waaye déedéet furaada la ko suñu borom bëggee ñaari dar si passé ma nga laqad jitumuna furaada suñu borom ni ñëw ngeen de kenn par kenn kama xalaqnaakum awwala marra te it nag li leen taxoon a yàqal nag taraktumuhu waraa duhurikum wa taraktum ma xawwalnaakum waraa duhurikum li tee nga am àjjana tey fi ne yow bàyyi nga ko fa yow yow lii moo la tere am àjjana ba pare te ëndaale woo ko bi ngay ñëw gis nga xoolal doomu aadama ak ak ak deem ni mu yërëmtaloo xoolal ak delloom ci yàlla ni mu yërëmtaloo summa ruddu ila allahi mawlaahum alxaq benn bis day xëy rek day saa loos bi di metti mbaa nopp bi mbaa bopp bi mbaa sax dara ndax xam ngeen ni bokk na ci min asraati saa al mawt mawtul faj'a mawtul faj'a jékki-jékki rek crise lu xew tension bi balaa ñoo yëkkati dee na loolu dafa bokk min alaamaati nubuwwati Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax nee na bokk na ci mandarga jeexu jamono mooy déegu bette jékki-jékki rek ñu rës diw dee na xaram diw indi attaque yi ne ahan kay dee na teewul jàppatu dara sama dënn ngay metti fi mu ko tegee nii rek foofu la ànd ak dënn ba daanu ci suuf loolu dégg nañ ko miraaran wa tikraaran xoolal doomu aadama ak delloom ci yàlla ni mu yërëmtaloo moo tax fa man kaana yarju liqaa rabbi ku gëm ni dana dajeeg boromam fal yaamal amalan saaliha na wut ak muus boo xam ne na ko rokkas ba mu fees ak tiyaaba amal fulla ak fayda sa compte tiyaaba tamit bul ko wax kenn bul ci dugal kenn amal fayda ju doy ne nag say bàkkaar tuub ko jooy ko jéggalu ko dem gi yërëm ba lu ne mbokk yi génne gi ruux ni mu mettee xam ngeen xadis yi ca rot xoolal doomu aadama bu ne këndam ni mu yërëmtaloo ni koy mbokkam di def mepp la ñuy def ba mu jekk wàcc mu wàcc lal bi yére yi nga jotoon a sol li nga dese xoolal dañ laa saisir saisir saisir ba li nga sol sax dañ koy jindi li nga sol dañ koy jindi dañ koy jindi parce que leneen la am na ñu ko soxla après ñu summi te fële summi sa dàll yi takk tekki sa takkaay yi montre yeeg yépp moom sa ginaar yi ci kër gi moom yëguñu sax dee nga ñoom ndax ñu ngi continuer sax ñoom yëguñu daan ko dee ci kër gi montre bi nga takkoon moom day continuer dox moom yëgul ni sax am na ko dee moom yaa taxaw yow yow yaa taxaw waaye moom mi ngi continuer ru lay dox portable bi nga yaram chaque jour yaa ci leen wuyu moom mi ngi continuer sala moom yëpp ni sax da ngaa dee say mbokk ñoo yëgi dee waaye moom yëgu ko de sa oto bi day continuer daw moom boo ci def essence muy daw moom yëgul ni sax dee nga sa dem gi dafa yërëmtalu lool parce que yow la concerné ñu jàpp la meeb bu dee guddi doo fanaan ci kër gi déedéet xoolal sa soxna ni nga ko bëggee ak ni mu la bëggee guddi googu wallahi du ngeen bokk laal fanaan ak lu mu la bëgg-bëgg nag bu ne ko sax nga nekk soxna si yonent nag laa wax wàcc leen ko lal bi génn leen ko néeg ba fanaane leen ko mor ba waxuma la bàmmeel dama ne xool ak góor gu ni mu yërëmtaloo dañ koy isolé def ko koo xam ni jàkk ji waxtoo kenn du fa julli kenn du fa ñëw lampe bi kenn du la ko taalal fi ñu la tëral nga ni jaar jaar daaral foofu ngay tëdd rek fekk nag lay saan ay sanawaat ndeysaan yàlla subhana taala may na la awalam nu amirkum fii ma yatazakkaru man tazakkar yàlla may na la ci dund loo xam ne su peeku xaj na fi jub xaj na fi jubbantiku xaj na fi baax xaj fi te defoo ci dara nag yow nga ne tëdd foofu rek yow fanaan fa moom say mbokk ñii di jooy ñii di danga gis nga jooy yooyu jooy benn fan ñaari fan la après dañuy jàll ci leneen parce que damaa moom la ko yàlla bindee doo fi nekk di jooy néew bi jëmale déwén da ngay jooy comme moom après nga tëdd foofu rek bu ñu xëyee allahu akbar mbokk yi dem gi yërëmtal wallahi yërëmtalu na ku xalaat sa bos wallahi yërëmtalu na xoolal bu ñu xëyee balaa ñoo am jàmm dañoo jublu ci yow defar kenn mënta liggéey kenn mënta xëy kenn tasa ndékki pour ñu am jàmm xoolal xoolal ñu mu yërëmtaloo pour ñu am jàmm dañ laa wax ba mu xóot suul la ba maasale la dénk la sax yi doog a am jàmm xoolal loolu ni mu yërëmtaloo ni mu mettee te say mbokk yi la gën a bëgg balaa ñoo am jàmm dañ laa def lu mettee noonu mooy yóbbu la wax ba mu xóot dugal ci biir ni la dalal ko nga ne nemm ni ner tàlli ni kadd kaddaaral tàlli ñereet ñu suul la sunu borom ne ah dellu si nga de summa ruddu ila allahi mawlaahum alxaq summa ruddu ila allahi mawlaahum alxaq mooy dellu si nga rek ci kër ak dëgg gi na waaye dellu si nga ci kër borom dëgg nag muy yàlla subhanahu wa taala mbokk yi foofu ngay fàttaliku yaqulu ya laytani qaddamtu li xayaati daw ci da ngay ami tànk gis nga foofu la ko nit di waxee nag qaddamtu li xayaati ñaata fan at la am ñaata ay nawafil mu mu rëcc te ma amoon occasion man koo julli ñaata ay faraid la sànq sama alal ji ndekete nit maa ngi ni doon soxor bañ cee génne te samay mbokk ñu ngi dinañ ko séddale force faf sax nag du ma fekkee fuñ koy séddale amwaluna li dawi lmirati najmauha wa duuruna li xarabi dahri nabniha lam tugni an hurmusin yowman xadainuhu walxulda qad aawadat aadun fama xulidu ah xoolal rek amwaaluna sunu alal yi li dawil miiraat ñi ñuy doon najmauha lañ koy dajaleel wa duuruna sunu kër yi li xaraabi dahri gaawal ràpp la waaja doon wax rek luddu lil mawti wabnu lil xaraabi sunu kër yi ràpp lañ koy tabaxal ah xoolal xeet yu njëkk yi ñu yàlla mooyeen puissance ak doole alal lu leen seen alalee jariñ dara wala suleymaanu qul suleymaan id tajri riyaaxu bihi fu mu jëm ngelaw yóbbu ko ñu ko jariñ tey keroog ba di di bi di di dikkee jinne yi sax xamuñ fa ma fa la ma qada alayhi mawtu ma dallahum ala illa dabbatul ardi taakulu min saata ku dem ba yàlla may ko ngelaw di naaw ak moom comme avion ndeysaan mu xëy xëy rek borom bi subhanahu wa taala daal di koy jël dee daal di koy dikkal mu dem kon loolu nga di ko xalaat di ko imaginer yow la yow yow yaay dem parce que ñi dem te nga xamoon leen ëppoo leen fulla ba tax nga des fi waaye dama fekkee daa am ku yóbbu waate koo xam ne yàkkamte du tax a yóbbu ku jot demam jotu moo tax borom bi mu ni man kaana képp koo xam ne yar nekk na yar jude yaakaar liqaa allahi dana dajeeg yàlla fa inna ajal allahi digab yàlla bi de la aatin dana yegg si de muy digab alaxira bi am na dig boo xam ne yow la concerné yow mooy sa bisab dee kooku mooy ajal allahi ci yow sunu borom ni waxu moom sunu borom ak samiu mooy aji dégg ji waaye al alim mooy ki nga xamante ni ku xam la ak déggam moom du ku ñuy gam-gam ne di ko nuru léegi doomu aadama parce que doomu aadama déggam dafa am ak capacité am fu mu yem laaj leen médecin yi ñi ngi wax ci koor doomu aadama kéemtaani yàlla yi ñu lay wax ci dégg-déggu doomu aadama rek boo xamul ko yàlla nga yow da ngay bëgg a yéemu ci nopp ni ko yàlla composé ci dégg-dégg fekk googu moom ab mbindeef la ci mbindeef suñu borom yi waaye alim ku xam la ku dañ la ci kumpa xabiir xabiiru bi ma taamaluun suñu borom mu ni wa man jahada képp koo xam ne mi ngi jihaad jihaad fii nag tekkiwul comme ni ko ñenn ñi foogee jihaad rek dem ca xare ba déedéet tekkiwul loolu de aywa naam aleykum salaam wa rahmatullah jazakumullah xeyr sunu borom ne waman jaahada képp ku jihaad jihaad ji nag tekkiwul ngàbb sa jaasi dem ca xare ba loolu ca la waaye fii al allaamatu ibnu kathir wa kadalika ñu bari ci borom xam-xam yi dañ koy tekkee jihaadu nafs waman jaahada képp ku jihaad ak bakkanam not ko bakkan bi ni fii laay jaar nga ni ko doo fi jaar ndax bakkan jàmm la bëgg ma ni déedéet bakkan bëggut jàmm ndax jàmmay ajana te bakkan lu bon lay digle wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi bakkan bëggut jàmm aleykum salaam wa rahmatullah bu bëggoon jàmm day womma nit jëme ko ajana moo tax wolof yi ne ku bëgg ku ku ku topp sa bakkan dina la jullee ba jiite la ci jàkka joo bëggu la jullee wax na dëgg da lay yóbbu foo bëgg la dem moo tax may wax ni koor gi ñu ngi naan seytaane yeew nañ ko yeew nañ ko nit bu ñu ko yeewee bakkan a ngi fi bakkan dafa am bànneex fi mu nekk nii ak caay jaay pare ñu naan lu tax seytaane yeew nañ ko bakkan baa ngi fi da ngaa fàtte ni ba seytaane ci bakkan bi lay jaar seytaane bu ñëwee bu ne xamul ne yaay kan day ñëw fóon sa bakkan bu fóonee bakkan bi am xet bu ko xeeñ mu xam sa point fort ak sa point faible moo tax léeg-léeg ñun dañuy def erreur da ngay dégg noonu ci man day woor rek ma tëb man day julli guddi rek ñun bu ko di wax seytaan di ko dégg nopp ko rek nga jéem koo faji parce que moom bu ñëwee day fóon sa bakkan bi su ko fóonee mu xool yow fan mooy sa point fort gis nga bu xamee sa point fort du fa jaar parce que xam ne bu fa jaaree du la galgal naka ngay fekkee ponkal mu am doole ëpp la nga naan da nga koy dóorub koros da lay rey nga dee kooku da nga koy bett dóor ko fu ñu koy gaañ wala nga def leneen iblis noonu la def alayhi min allahi milliardaati laana fi kulli lahza day ñëw fóon bakkan bi xam ni waa ji kii daal problème mu problème mu jigéen la am gis nga foofu lay jaar ak yow di la meeb di la nooj noojal di la nepp neppal ba njaaloo loola kii problème mu nangam la am ci problème ku nekk fam lay jaare da ngeen yaakaar wenn yat la jot rek comme dóor nga ko ko technique iblis romb na foofu waxoon naa leen ko neew naan ibnil jawzi am na benn téere bu am solo mu tas tuddee ko talbisu iblis gis nga boo ci delloo subhanal malikil aala damay docteur la buy consulter képp ku gëm yàlla pour nga xam fu la iblis di jaar gis nga kon ku jiraat notanteeg bakkanam ah wax na ne bakkan comme xale boo ko bàyyi muy nàmp rek moom xamul fer da nga koy yar di ko tarbiya boo gisee ay misaal di wax tarbiyatum nafs mooy bakkan dañ koy yar am na loo xam ne mënoo góor waaye da nga ci tàggat sa bakkan ba man léeg-léeg bakkan bi nga njoj dañanteeg moom léeg-léeg mu bëgg dara nga xañ ko imam ahli sunna wal jamaa ahmad ibn hanbal nga xam ne bokk na ci imam yi gën a xam ci zuhdu ak yar bakkan nee na bokk na ci nit di zuhdu ak yar bakkan bi mooy du lépp luñ ne la dagan rek nga jël taw nga am yu dagan yooyu bàyyi ngir bëgg a mucc te yu araam ya sunu borom ne wa man jaahada ku jihaad notanteeg bakkanam fa innama yujaahidu na xam ne mi ngi jihaad li nafsihi boppam rek la koy defal moo koy jariñoo yow boo jihaadee sa bakkan ba nokk mu nekk min ibadillahi salihin bokk ci aaya dana kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun bokk ci jaamu yàlla yooyu nga xam ne sunu borom day wax ni képp ku leen noonoo maa nga wax leen loo leen war te wax rek mu rëq sa ndigg maa xam ngeen ne am na ñoo xam ne yàlla moo leen di fayul subhanahu wa taala ñoom jërum ñu yëkkati seen loxo yénti yàlla bi nee na sunu borom nee na man aada li waliyan faqad aadantuhu bilxarbi am réew bi ne faqad baaradani bilxarb déclaré naa ko guerre am beneen riwaay dane yow yaa ñëw songu si ma te ñaar yëpp benn baaxu ci ku noonoog sama nit man yàlla di ko wax loo ko war te wax wala nga def ko loo ko war te te fekk nitu yàlla la sunu borom mu ne préparé ci sa kaw laa jëm si mbokk yi ku sunu borom jëm si sa kaw foo jëm kooku jëm sax mu yëkkati loxoom yàlla soo tala moo koy fajal day dem ba yàlla da koy sopp subhanahu wa taala jibril bëgg ko woote kaw asamaan nit ñi bëgg ko lu tax parce que dafa yar bakkanam ba àgg ci boobu marxala ah moo tax manazil yi ñu fi doon waxtaanee balaa koor gi muy manazilu saa'irina ila allah nit ki foofu lay jaar ah manzilatu tawba ah manzilatul inaba manzilatul ixbaar manzilatul shukr manzilatul sabr manzilatul yaqin ila axiri ba nit ki dem ba yegg ca ngeen mokkal nga nekk min ibadillahi almuxlisin ah xam nga muxlisin nga nekk mooy yow yaay jéem a sellal nga dem ba mu yàgg suñu borom tappal la garaatub muxlasin ñu maas ko ca kaw mooy léegi yow du yaay sell waaye dañ laa sellal yow te xam ngeen loolaa gën a wóor na moo tax Yuusuf ba mu tarbiya bakkanam ba yegg fa suñu borom ne innahu min ibadil muxlisin de muxlasin muxlasin parce que dafa tarbiya di tàggat étape par étape àpp ko déwén àpp ko déwén jéeg bi mu yegg ci njomboxtal ga nag bokk min ibadillahi al muxlasin moo tax ba ko ndaw sa provoqué mënu ca dara moo tax bañ ko tëjee kaso dafa mel ni ku nekk ci biir néegam parce que min ibadillahi al muxlasin moo tax bañ ko sàkkoo mu génn kaso dafa lànk parce que boo xësee ba nekk min ibadillahi muxlasin nekk kaso génn kaso nit ñi ne yà li la yitteel mooy yàlla gërëm la fas alin niswa maa baalu niswati allati qataana aydiyahunna génn ma te kuñ ñi génn kaso da nga yàkkamtee génn innahu min ibadillahi muxlasin moo tax tàbbal nañ ko ci teen xoli googu coxorteeg man ak yéex waaye ñàkk ko defoon la tasriba alaykum al yawma yaghfiru allahu lakum amul lu muy denc ci xolam parce que huwa min ibadillahi al muxlasin lii de du yàlla lu mu jagleel ay yonent kese la déedéet ñëpp ñoo ko bokk ku góorgóorlu sunu borom dimbaleel ci yàlla yàlla defal ñu tawfiq sunu borom mu ni inna allaha sa borom yàlla gani ku oomlu la soxlaalul jaam ñi dara gis nga ñëpp bu ñu bàyyi woon ni yàlla ñu ne naam ñu ne ko bàyyi nam laa jaamu dum la jaamoo ci kaw suuf sunu borom danaan nu ndox yéen a ko yëg de in takfuru antum fi ardi jamian fa inna allaha ganiyun ankum wala yarda li ibadihim kufra te it nag wa in tashkuru yardahu lakum ndax daf leen a yërëm jaam ñëpp bu ñu weddi woon suñu borom wàññiwu ko dara ñun ñëpp bu ñu àndoon di ko jaamu yokku ko dara ndax loolu moom suñuy intérêt la ñun ñoo koy liggéey ñoo koy lekkaat après benn énergie la ci suñu borom amul soxlawu ko ci la gani ku oom la anil aalamina ci mbindeef yi suñu borom ni walladina gaa ñi nga xam ni aamanu dañoo gëm yàlla gëm yàlla ak am solo gëm naa yàlla nag yomb na waaye gëm yàlla yombut xam nga gëm yaa yàlla yaa làmmiña ko wax gëm yàlla nag ci fii la nekk ci xol bi gëm yàlla ci xol bi la nekk gëm yàlla gi moo lay may li ñu doon wax si si yépp ba ci sabr gi ñu doon wax gëm yàlla mooy tax nit ki man ko am gis nga walladina sabaru ibtigaa wajhi rabbi di muñ ngir damu ci yàlla kese kooku imaan am ca xol ba imaan nag juróom-ñaar fukki xaaj laaj lu topp ba ca gën a faible mooy fekk luy gaañe nga toppal ko yoon wi mbokk yi ñun bu dee ñi gën a faible ñun léeg-léeg ñu tëri ko kon la gën a rëy ndax ñu ngi koy man mu ne kersa shu'batun min shu'abil iman iman am nay ponk gëm yàlla gëm malaaka yi gëm yonent yi gëm téere yi gëm bis penc yooyu day bari nag ñoo xam ne buñ ci yegsee baax le waaye iman bil qadri nag buñ ca yegsee rek ndeysaan nga gis tànk yi commencé glisser parce que dafa jafe qada'ullahi wa qadari dogal sunu borom yi da nga ci gis ñu bare bare dañ ciy tarxiis parce que léegi doomu aadama jël mbir sëpp ko ci kaw nit te fekk boo fàtte ne nekkate yàlla moo ko tege subhanahu wa taala gaa yi gëm yàlla waaye waa amilu salihat al iman boo xam ne maqrun bil amali salih moo tax ñi nga xamante ni dañuy wax xol rek moo takku déedéet loolu ab pas-pas lay firdeel ca pas-pas yu ñu yàgg ña al mu'tazilaat nga xam ne ñoom bokk na ci ñuy wax loolu iman moom amul problème sa iman ak imanu jibril moo tolloo loolu waxi kasaaw kasaaw yooyu mooy lan yow sa iman mënta tolloo iman doomi abubakar siddiq sax bay tolloog abubakar bay tolloo yent bi nga naan ma ay jibril ak yu kat xam loolu loolu xel da koo nan iman la yasid wala yanqus fu ñu dégg fa la naan dégg loolu mënul nekk yàlla sax dafa sàkku lu yokku wàññeeku loolu yàlla sàkku ci mbindeef yi ñi ñi ñi ci iman ak ci doomu aadama jekki nangam déedéet day yokk maamu wàññeeku taxaw benn place déedéet wata sunu borom ni ku gëm tey jëf-jëf ju baax lanu kaffiranna anhum sunu borom dana leen kaffaaral fompal leen bërësal leen yàlla dana leen bërësal sayyi'aat yi ñoom seen i ñaawteef waaye wala najziyannahum dinañ leen fay ajrahum wala najziyan dañ leen fay ahsana alladi kaanu yaamaluun lu gën a rafet lan doon fay lan doon jëf loolu dafay firndeel aay ji ñu doon tafsir dem jeexintal suutu xasas ah man jaa bil xasanati ah ku dikkee indaale aw yiw yàlla dana ko fay lu gën a baax lam doon jëf ku indi safaan nag duñ ko fay lu dut lam jëf kese te fay la lu gën a rafet la nga doon jëf huwa al fadlu fay la lu toll ni la nga doon jëf huwa al adlu bàyyi la la nga jëf mu fay la ko loolu mooy maandute mooy mu neutre ci say affaire amma mu fay la lu gën a rafet li nga doon jëf loolu mooy fadlu te wallahu dul fadli al azim sunu borom mu ni wa wassayna al insana léegi nag ñu dénk doomu aadama wa wassayna al insana dénk nañ doomu aadama wa wassayna al insana tàkku nañ ci doomu aadama ni ko bi walidayhi wala xusnan rafetal lañ ko sàkku bi walidayhi ci ay wayjuram sàkku nañ doomu aadama nit ki mu rafetal jëmee ci ay wayjuram man humul walidaan mooy ñaar ñooñu nga xam ni ginnaaw bu dogal bu yàlla jiitoo ni di nga judd ci seen loxo la ko yàlla jaarale wal fadlu lil mutaqaddim arab yi dañ al fadlu lil mutaqaddim ñaar ñooñu nga xam ni ah ñoom ñu am solo lañ ci sa dund bu dogal sunu borom jàllee bu dul woon ak ñoom doo fi jaar yow ndax bu ñu la xojoon nga dee buñ la defoon neneen noo xam ne bu ko deful liir mu dee ñu def la ko ñu di la màgg-màggal di la nebb nebbal ba nga mel nii nga mel tol ni nga tol ñaar ñoo xamante ni ñoom seen ndébét mi gën a rëy mooy na seeni projet projet d'avenir mooy nañ dee bàyyi la fi yow yow say projet d'avenir mooy maire bi kañ lay dee wala paa bi kañ lay dee loolu la loolu la de wax ji daa daa daa faa ŋaaral rek nag waaye noonu la kenn ku nekk ci ñun say ndébét nekkul kañ laay dee bàyyi fi sama baay déedéet man waxante dëgg te yàlla tax kañ laay dee bàyyi fi sama baay wala kañ laay dee bàyyi fi sama yaay déedéet kañ la paa bi dee wala kañ la mère bi dee saa saa sax nga dégg ñun dañoo bëgg a yëkkati kër gi paa bi ne kenn du ko fi yëkkate ñu ne nañ bàyyi ba mu dee mooy ñi nga xaar mu dee gis nga damaa bëgg a tukki paa bi ni man sama doom kenn du tukki ni nan xaar ba mu dee pro gis nga projet yi nit ki mooy mu dee mu jóge fi te moom day sànn ay projet am yëpp mooy nga gën koo gudd fan ay projet mooy nga gën koo baax bu dee xam-xam na nga ko ko ëppale bu dee alal na nga ko ko ëppale moom daa bëgg mu tungoom la ba ca kaw ñëpp naan la njool mi ndax yaa sut ñëpp moom loolu la la yéene koo xam ni allahu akbar surtout way juru jigéen yàlla mooy dénk naa leen rafetal jëme ci seeni way jur mu ni xamalatu ummuhu mel ni bàyyi dafee newul aan kay mi ngi fi waaye yaay daa sonn dénk naa rafetal jëme ci sa ñaari way jur rek automatiquement rek mu ne yaay ja yaaya ko ëmbul wahnan ala wahnin gis nga doyati yaa ngi koy tufliloo di tey am xelam tere koo dem ca ndaja ya tere koo dem ca mbootaay ya tere koo dox ay soxlaam biir bii métti muy wañaaru nit ñay nelaw muy jooy yooyu yëpp ay méttit la xam ngeen xam lu lu yàlla tuddee lu doyati di lu métti rek xam ngeen ni métti na ndax sunu borom aalam moo gën a xam nga dem ba toll nag ci génn mu nekk ci diggante barzaq ak àddina nag xel mii naan tey laay fanaane allah kay xel mii naan ko muñal rek yàlla dina la sàng sutura allahu akbar yàlla def ak jàppandal nga génn mbégte mi gën a rëy mooy doom ji gis nga yaay xaw tuuti kon aw fitam naaw joggi ko mu di ko séen su xëyee benn bis rek gis doom ji di raam ndax mën naa raam raam rek mu kontaan loog bay waaj a naaw bis day xëy mu séen la ngay cakkam-cakkam yi dox rek journée boobu bu lekkul sax suur na ndax am mbégte bàyyi dang dangi ca naaj wa di indi di la jox ngay lekk ñoom buñ la joxul woon doo lekk buñ la yarul woon doo màgg buñ la dimbali woon allahu akbar amu indi woo yére indi woo dàll indi woo dara lépp ñoom ñuy sonn ci yow ñi ak nun mën a mel nun mën a mel laa wax rafetal jëm ci ñoom loolu alquran santaan moo tax suñu borom mu ni dénk naa doomu aadama rafetal jëme ci ay way juram say way jur moo tax ay matu salaf mbokk yi dañoo rawoon gaa yi ci bunt boobu dañoo rawoon gaa yi ci bunt boobu yaakaar naa ni ñenn ci yéen yéen a ngi fàttali xutba ji ñi fi defoon te yàggut lool ci birrul waali fakkul withaaq fakkul withaaqi fi birril waalidayn waxoon naa leen aimatu salaf ñoom ña nga xam ne ñoo gën a dégg njàngale yàlla akub yonenteem ñoom nan lan doon jëflante ak seeni way jur su ma ca doon fàttali leen ci lu gàtt rek gis nga am na ci benn waay bu ñuy wax amr ibn zayd amr ibn zayd dañ koo laaj ni ko waaw yow sa doom yan rafetal la jëme jëm ci yow yan rafetal la def mu ni bokk na ci li ma seetlu mooy moom bu ñuy dox maak moom ñu ànd guddi du nangoo ne sama gannaaw sama kanam lay nekk pour lu may lor mu mu lor ko moom suñu dox bëccëg sama gannaaw lay nekk ndax comme yoon wi leer na ndax nee na bëggumaa jiitu ak lan mu ni saa bu amee soxla ci kaw mbaar mi na ma yéeg danaan xool leen ba xam saa bàyyee ci biir néebeem déet bu nekkee ci néeg bi mu ni du ma dem ndax bëggumaa tiim néeg boo xam ni saa bàyyee nga tëdd ci suuf allahu akbar keneen a ngi nii ku ñuy wax Muhammad ibn al-Muhayriz moom day wax ni képp koo xam da ngaa ànd ak sa baay ngay pëxër pëxëri ca kanamam jiitu ko nee na amooy teggin te dënge nga sa baay tamit nag waaye ku woo sa baay ciw turam mu ne xamane li ñuy tuddee dënge wayjur yow dugg nga ci Omar ibn al-Khattab benn waaye dafa boot yaayam daa boot yaayam ñëw di ajak moom di ko aj di wër wër kaaba gi ba wër gi yegg mu ne ko ah Omar gis nga kii kan la xam nga kum doon mu ne ko déedéet mu ne ko kii mooy sama yaay mu ne ko gis nga waxuma la maa koy ajak moom waaye même bu amee soxla sax maa koy boot ndax tànk yi baaxul est ce que fay naa koy àq xam Omar ni ko déedéet mu ne ko lu tax mu ne ko moom dala daan boot tey ñaan nga gudd fan yow mi yaa ngi koy boot wax ma léegi sa xol yaa ngi ñaan kañ lay faatu mooy li ma doon wax sànq effectivement yaay jii ñaan bo boot doomam la muy ñaan du na xale bi gaaw dee déedéet na xale bi gaaw màgg man ma dee bàyyi ko fi mu donn ma waaye déedéet yow na baabi gaaw dee ak meer bi nga doon ko mu ne moo tax kon fayoo ko wal fadlu lil mutaqaddim moo njëkk a def am na benn waaye bu ñuy wax yaxyaa dafa duggoon ci biir kaso bi ma baayam ndeysaan baay bi dafa feebar ba dañ koo tere jàppee ndox mu sedd muy indi matt ci biir kaso bi di tàngalal baay ji pour mu jàpp benn bis gardien bi di leen matt mi ngeen di indi ak doom bi day tilimal kaso bi tey kenn du fi dugal matt mu xalaat di man sama baay su ma ko bàyyee mu jàpp ci sedd bi mbaa mbir mi di ko crise la léegi nu may def ba mu jàpp xam ngeen kaso bi day am làmp nit ñi nelaw moom mu jël benn poto weñ ut jàppukaay téye ko xam ngeen làmp day am chaleur mu ñëw taxaw jël làmp pot bi pot bi teg ko ci wetu làmp bi li ko tàmbalee ginnaaw gee ba fajar xam ngeen diggante bu ab chaleur mënut a tàngal dara waaye ngir mu nubbal ndox mi pour fajar baayam man cee jàpp waaw fa kay fa kay ki nga xamante ni da ngay xëy tëj robinet bi di liggéey ndax sa baay day yàqaate ndox mi fa kay fa kay ki xoole bañ coupé ku robinet baayam ah allahu akbar ak ak ak yeneen yi nga xamante ni xol bu jeex tax na kenn mënu koo tudd te ñu ngi koy dund tey jaafar wala abdullah ibni awn moom dafa nekkoon waa joo xam borom xam-xam wax ni mu fonki woon ay waajuram benn bis yaayam da koo woo mu ne labbayka daal di yëkkati baatam ca kaw mu pare di jooy xam nga lan la doon jooy pourquoi may wax ak sama yaay di yëkkati baa sama baat léegi faw jaam yi ma am ci kër gi faw ma jël ñaari jaam goreel ko pour bégalee ko sama yaay ngir yàlla bu mu ma jàppee sama baata ngi wax ca kaw waaye ñiy saaga seen yaay nag kon ñi cëppatu seen yaay nag ñi nga xam ne da ngay wax sa yaay ba wëccax koy baaraam bal sax nag sa yaay sax du la ñemee wax ay soxlaam faf gis nga nu mu tëddi jaafar al marwazi mu ni am na benn borom xam-xam bu ñu xam ahlul xadis xam nañ ko muy bundaar bundaar nee na ci sama jamonoy yaay dama kaa tàggu ni ko damay laxas dem jàngi bundaar ni sama yaay ni ma déedéet toogal fii nga sàkk sama ngërëm waaye bul jàngi bu doon ñu ne da nga waaye yow ay toogal fii mooy lan sa waajur man damay wax wax ay wax yu kenn mën xamul bundaar nee na ma dégg sama ndigalal waajur toog mu ne mbooloo ma jàngi woon bi ñu ñibbisee mu ne ëpp ne wuñ ma dara te gëm naa ni sama ngërëmal waajur laa ko amee Zeynul Abidin defe naa newoon naa leen moom nee du lekk ak yaayam mukk buñ ko laajee muy damay bañ ma coppati loo xam ne sama xelam yaay dem na ci te bëgguma loolu dugg saa génne Abu Hanifa gis nga Abu Hanifa bu musaana gaañu mu am góom fii day toog ñaari fan pour bañ yaayam gis ko ndax yaayam da koo bëggoon ba nee na sama rongooñ yaay bëgguma kaa tuur te comme sama yaay daf maa bëgg su gisee ma gaañu moo tax benn jour dañ ko wax ne ko kaay ñu fal la qaadi yi mu bañ kaay ñu fal la mu bañ ñu jàpp ko dóor ko ba teppi fii mu kaalaw ba nëbbaale fii ndax nee day bañ yaayam gis ko rangooñu yaayam di tuur waxtoo ñu jàpp boo tuddoon da ngay dim lu bari loo xam ne yow da nga naan ñii yan nit lañ woon yan nit lañ ay misaal yu bari yoo xam ne ci ay batu salaf ñoom nii lañ doon dundee seeni way jur moo tax suñu borom mu ni wa qadaa rabbuka allaa taabudu illa iyyah yàlla moom dafa dogal ni bu dara lu dul jaamu bu ñu jaamu kenn ku dut yàlla wa bil walidayni rafetal nag ihsaanan wa bil walidayni rafetal jëme ci way jur mu ne rawatina nag imma yablughanna indaka alkibara ahadukumaa aw kilahuma buñ demee ba jëm mag ndax xam nga ni mag ndeysaan poos bi da daan diis diisatu da daan liggéeyee traité na ba di yee neexoon naqari na tànk yee dëgëroon bañ na ah bañ yi sax mënatu ko yooyu lu bari te nit lu mu amoon mu ñàkk ko daf koy énervé day day naqari ci moom suñu borom ne imma yabluganna indaka alkibara ahaduma rawatina nag ñoom ñaar bu ñu nekkee mat wala kenn ci ñoom nekk mat mu ni fala taqul lahuma uffin bul wax mukk ëf wala kàddu ku ko jege wala cëppatu wala déedéet wala tanharhuma bu leen gëdd wa qul lahuma qawlan kariman wax ju nooy booy wax ak sa yaay melal ni ku feebar booy wax ak sa baay mel ni ku feebar ah ah te ameel nga ko àq wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira suñu borom ne rabbukum aalam ma fi nufusikum bal bu toogee ca kaw toogal ci suuf bokkul ci teggin toog ci lal bi sa baay di toog bokkul ci teggin toog ci ba tey ba sa baay di toog bokkul ci teggin jaar ci sa tuuru baay bokkul ci teggin mu woo la nga yéexam talu yii yëpp ay teggin la yoo xam ne defuñ ci dara yow ko sa yaay xaw ma xaw ma nuñ koy waxatee ci koo xam ne yow carte ab crédit rek bu 1000 francs bu ko sa yaay sàkk woon ci yow nga bañ kooku bu la sa yaay wooyee di kuuy moo taxit loo ci gis da ngay gis ku koo xam ne ci ñun vraiment day jekki ci tekki lool tekki ak war a mën a baax daw ba ñëw ci doon xarantey tànkam mu war a mën a sëgg jël jël ko ndigli kare gis ku torox wallahi alazim ku torox te fekk ak wee juróoma ko jàpp mën nga génn fii gis ku dee dee bu ñaaw fekk ak wee juróoma ko jàpp borom xam-xam yi dañuy wax ci buntam dënga say ñaari way jur conséquences yi mën a indi bokk na ci loolu même sa wërsëg mën naa kale te fekk looloo ko waral ñàkk rafetal jëme ci sa way jur kontaan lool sa yaay dama ni nga dem mu ñaanal la moo gën a wér boo yaakaar ci adduna bi mu ñaanal la laa wax kon leen suñu yaay man ci li ma fàttaliku rek nga xam ne man bërki démb mii ci li ma fàttaliku laaj leen suñu bàyyi ñu ñu mag exemple musaanam ko ne def ay COP gi demee noonu amul dem ci sëriñ bu maa takk maa dara sa yaay ngay dem rek sa yaay daan lay ñaanal ne ah bu dee wér na ni déggal naa sa baay bu dee wér na ni maa ngi jaamu yàlla te sa baay yàlla dina la sàng sutura demal yàlla nangu ñaan di gis nga sa bàyyi tàllale loxo ne bu dee jur naa la fan la war a jure yàlla nan la war a yare maa ngi ñaan yàlla yàlla yàlla sàng la sutura nga dem at mi dama ni ñaanam yonent yàlla ne day nangu gis nga même bu fekkee dafa ñaan lu bon sax day nangu moo tax yonent yàlla mu ni bu leen ñaan lu bon ci seen way jur yi seen doom yi parce que bu ñuy ñaan nangu bu ne lay ñaanal lu bon rek muy nangu yal na la yàlla toroxal yal na la yàlla alak yal di ëpp naa di bu ko kenn nangu sa way jur di la ko wax yooyu day yàqal nit ci dafa na moo gën ah kon man maa jaxase ah ay ca boobu maa ngi jaa maa ngi jaawale sunu sunu sunu quatre heures jeeg cinq heures ji de ay ca boobu kon borom bi subhanahu wa taala def na ni way jur ci boppam su fekkee doomu aadama ji góorgóorlu ni ba am ngërëmam yàlla mën naa baaxee ak dundam wallahi comme ni ma ko waxee da ngay gis koo xam ni ndeysaan ah ay mbiram day yéwén baax lool jàppandi fekk yàlla subhanahu wa taala daf koo defal dafa am ngërëmal way jur nga gis koo xam dafa yàqule alalam yàqu ay biyeem yàqu mu toskare man gis naa ak sama bët lu ma kenn nettiloo xam ngeen nettali moom toujours moom bi ci gën a wóor gën caa baax mooy gis ak bët koo xam ni li muy dund am na ala yaqinin kaamilin taamin ni alkande gi muy dund fi mu ne ak way juróom a ko jàpp lii moom sikk sàkkawuma ci te kenn waxuma maa gis maa xam yow koo xam ni dara mën ne ci say loxo yow lu la jox mu seey yow koo xam ni mënoo dégg ma dara mu sotti loo yaakaar mu tas loo bëgg mu yàqu vraiment loolu normal boo vérifier sa bopp nga vérifier xool dina am yaa quelque chose am na lu la gàllankoor moo tax bari waa na ñoo xam ne ci ñun mënuñoo dem fekk seen i ak way jur la sa way jur mi ngi dund jaamul yàlla ci moom dama ne mooy sa sëriñ moo gën a wóor ci sëriñ si moo tax borom bi subhanahu wa taala di ñu tere ñu dënge way jur yi yéen yàlla bi nee na ñett ngi yoo xam ne lu ne la yàllay xaare mbugalam ba àllaaxira ba des yii bokk na ci ñett yooya mooy dënge sa way jur mu ni kooku moom toroxtaange fii ci àdduna rek moom du xaar àllaaxira moo tax suñu borom mu ni yàlla digal na doomu aadama mu rafetal jëme ci ay way juram wa in jaahadaaka bu fekkee ñoom dañ laa forcé wala ñu gëtan la wa in jaahadaak mooy buñ la gëtanee li tushrika bi mooy nga bokkaale maa laysa laka bihi ilm loo xam ne amoo ci xam-xam maa ngi moom dañ laa bëgg a bokkaale loo yàlla léegi nag rafetal jëme ci way jur gis nga aaya ji ni ñu wàcc sàmm bi wax xas saa su nee na am na aay yu wàcc ci man bii ca la mais nag sama yaay bi ma tumbee dugg ci lislaam affaire bi daf koo métti mu ni saadu yéen dégg naa ne yéenay wax ni seen yonent bi nee na da nga war a rafetal jëme ci wajur kenn du ko dënge kon nag damay ñàkk a lekk ñàkk a naan bu ko defee ngir nga génn ci sa diine ji boo ko defut ma dee fatu ay yaru bi ummi ñu lay xasee naan la yaaray sa yaay xam nga loolu aw xas la yaa def nangam ba sa yaay dee xam nga aw xas la yaa misère loo sa yaay ba mu dee mu ne ko loolu lañ lay xasee saa su nee na sama yaay dafa toog ay fan nekkut muy dem nañ ba ab bant bant aw yat la ñuy jël ŋaanal ko fii téye ko ci ndax day ñepp gémmiñ même buñ ko forcé day képp kebale gémmiñ gi du nangoo lekk daa bëgg a xaru parce que saa dana génn ci diine Muhammad ji nee na bu lekk jotee bant bi la ñuy jël comme ni ñuy ngalaatee fas di sotti mais wala ñuy sotti ruy bi mbaa lekk pour mu am lu mu lekk ndax mu bañ a bu paree mu kebaat gémmiñ gi lankare du lekk saadu ni ko wallahi boo amoon téeméeri bakkan mu yor benn par benn di dor benn par benn bañ woo si ma ne saadu gaawal benn ca des mu ne dinaa bàyyi benn ba dee du ma génn ci li ma nekk de dama lay wax lu leer nag mooy wane ni kat déggal way jur daa am fu mu yem déggal way jur ak lu mën a am fii nekkul mooy yàlla déggal ko ca waaye su la diggalee bokkaale yàlla kaay kaay xaatimal ma kaay tuural ma kaay defal ma ay ay ndëpp ak xama yu kenn xamut pettaaw yëf yëf yooyu nga xamante ni kulluha shirk bañal sunu borom ne wa in jaahadaaka buñ la gëtanee li tushrika bi ma laysa laka bihi ilm ngir nga def loo xam ne amoo ci xam-xam wa shirku laysa laka bihi ilm loolu la bëgg a wax mu ne falaa tutaahuma bu leen topp waaye aaya ji nag am na lu ma ci lu ma amal solo te ñëwul ci fii mooy wa saaxibuhuma fi dunya maarufan xam nga fële dañ fala tutiahuma waaye da ca teg wa saaxibuhuma fi dunya ak lu am lu am solo la boobu nag da ngay gis ñun ñi nga xam ne ay shabaab lañ di góorgóorlu ci diine sa wayjur la gëtal la ci loo xam ne yàlla da koy bañ nga bañ ba nag coupé sa relation sa digganteeg moom amoo dëgg parce que yàlla mu ne wa saaxibu fi dunya maaruf fi dunya mooy li ngeen séq ci mbiru àddina yi jox ko mu lekk jox ko mu naan yaa ko war a dëkkal yaa ko war a dundal bu la abbee sa oto bi abal ko fa mu jëm mu dem fa bu la ñaanee paas may ko mu dem bu bu amee ci yow soxla defal ko ko bu jëmee ci wàllu shirk nag nga doo ko bañ ñun da ngay gis koo xam ne relation yëpp lay bëgg a coupé ngir naan ay bokkaalekatu yàlla la dama ne saxaaba yi am na ci ñoo xam ne seen bàyyi ñoo dàqoon na bokkaale kuy bokkaale te dañ doon rafetal jëm ci ñoom am ñoo xam ne seen bàyyi laysu mushrikina fa hasbun bal kuffaar xullas waaye dañuy rafetal jëm ci ñoom saaxibu wa fi dunya maaruf mooy li nga xam ne du bokkaale bu dara nga rafetal ko jëme ci ñoom dee ko seeti dee ko nemmeeku ah jëndal ko téléphone woote kaay utal ko oto boo ko manee dee ko paasal fa mu jëm su fekkee man nga ko ah yu yëpp ay mbir la yoo xam nit ki faw mu def ko sama war gar naa ko def bu koor jotee ma jënd suugaru koor goros jox la jënd meew jox la bu tabaski jotee ma jëndal la xaar def sama waru gar gis nga foofu bul xool ay kii am na ko ah kii de am na ko jarul ma koy defal déedéet suñu borom moom xoolul ndax moom am na ko moom àq boobu la amee ren way juróom def na ko yow àq bi nga ko amee def ko yow bu ko amee suñu borom waxu ci loolu yow amaadama am nga ko rek yaa ko war a def yow defal ko mooy wa saaxibuhuma fi dunya maarufan même bu la dogee jokk ko ndax sël man qataaka sa baay ñi la gën a jege ñoo ci gën a yey moo tax suñu borom mu ni fala tutiahuma bu leen topp ci bokkaale yàlla gi waaye nag bu leen dëng de ndax mbaa xam ngeen ni ñoom bu ñu la ñaanalee te fekk ñoo am dëgg ci sa kaw léeg-léeg nag mbokk yi dinañ faral di tiit leen da ngay dégg ku woote téléphone di laajte naan ah way juróom da koo tëkku menacé ko te li nga ko tëkkoo daanaka ay ay ay boo bàyyiwul sa sa julli yi ngay julli ko di boo bàyyi sa muuraay yi danaa la ñaanal nga àl ko na la ñaanal kooku du la wàññi dara foofu moom du la wàññi dara boo bàyyiwul sa muuraay bi boo kiil ma génnele kër gi dama lay ñaan nga àl ko nga yàqu bu ko ñaanee dama ni fenn la dul egg laa wax kooku téléphone la bu dul am réseau fenn la dul dem waaye su fekkee nag moo am dëgg bu la ñaanale rek taf lay def day egg da ngay xëy rek dem bëgg a liggéeyoo ñu dàq la rek ndeysaan benn borom xam-xam day nettali ni benn commerçant ndeysaan soxna see ko jiital ci biir lu waale dañ la doon nettali soxna see ko jiital soxna si daal lu mu wax moom lu mu joxoñ mu dagg mu am yaayam ndeysaan sàggane yaay ji takk jabar beral ko appartement bàyyi yaay ji du ko toppatoo du ko nemmeeku du ko woo ndeysaan yaa ngi saa bu dikkee di ko laajte rek mu ne ko amul aw ma te jabar ji lu mu laaj mu jox ko ndeysaan yaa ji benn bis xol bi jeex mu ne ko yàlla yàlla këtt sa loxo yi ko yàlla na yàlla këpp sa loxo yi allahu akbar te xissa bi waaqia yi lu am la gis nga waa ji dafa génn di dem ci benn caravane ci àll bi ndeysaan commerçant la woon gars yi dab ko gis nga bu ñu dikkee fii lañ dagg loxo yi ñaari loxo yi fii lañ ko dagg ba pare nangu lu mu yore ci alal yépp daal di koy yeew ci benn garab dem bàyyi ko foofu ay nit ñoo jaar foofu rek gis ko ndeysaan daal di koy jël biñ nee ko yow loo dal mu ni sama àqi way jur xool lu la dal nekk fa daan agresseur yeeg ñi ñëwal yi sama àqi way jur kon doxut xam na li xew li leen gis nit ñàkke ay way juróom ñàkkee goo xam ni yàlla dana ko toroxal fi dunia qabla al axira moo tax buntu ba mbokk yi bu jar a bàyyi xel bal law lam yakun illa ibadatu min al ibadat dañ ko war a def rawatina nag boo ko defee am ci ngërëmam am ci ñaanam am ci kontante sunu borom tey yaakaar ci ajana sunu borom li way jaahadaaka buñ la gëtalee li tushrika bi ngir nga bokkaale maa laysa lii bihi ilm wala maa laysa li tushrika bi ngir nga bokkaale maa laysa laka bihi ilm loo xam ne amoo ci xam-xam mooy bul bokkaale rek fala tutaahuma bu leen topp waaye ilayya marji'ukum fi man de ngeen dellu si fa unabbiukum dinaan xabaare bi ma kuntum taamaluun ci li ngeen doon jëf ki doon dëgg way juróom ak ki nga xam ne dëngiwul way juróom ñëpp suñu borom xam na leen suñu borom ni walladina amanu gaa yi nga xam ne gëm nañ yàlla wa amilu salihat tey jëf-jëf yu baax lanudxilannakum yàlla ne danañ leen dugal boole leen fi saalihina ca gaa yu baax ya ulaika alladina an'ama allahu alayhim min nabiyina wassiddiqina washuhadai wassalihin wa xasuna ulaika rafiqa dalika alfadlu min allah ci yërmande yàlla joojee nga xam ne mooy alfadlu ah sunu borom ni ñi nga xam ne gëm nañ yàlla tey jëf-jëf yu baax la nudxilannahum fi saalihin dinaa leen boole ca gaa yu baax yi nga xamante ne ca àjjana ja la ñuy xéewloo ji yàlla sunu borom defal la sunu borom wa min annaasi am na ci nit ñi man waajoo xam ni wala man gaa yoo xam ni wala ñoo xam ni yaquulu dañuy wax naan amanna gëm nañ billaahi ci yàlla dellu si waat nañ ca bopp saar ba suñu borom ne am na ñoo xam ñoom boo leen laajee dañ naan gëm nañ waaye fa ida uudiya fillah buñ ko fitnaalee ci yàlla buñ ko dooree mbaa ñu gëtan ko mbaa ñu tëj ko mbaa ñu yàqal ko mbaa ñu fitnaal ko ndax diineem ji muy dund comme na ko saxaaba ya doon defee jaala fitnata naasi day jël fitna yi ko nit ñiy teg amplifier ko ngandal ko rëyal ko ka adaabillahi mel ni yàlla wàcc mbugalam loolu de xanaa mooy la ñu waxoon ci suratul xajj wa min annaasi man yacbudu allaha ala xarf fa in asaabahu xayrun itma'anna bih wa in asaabahu fitnatun inqalaba ala wajhi xasira dunya wal axira am na koo xam ni nattu yi saa bu yegsee rek nga xam ni kii vrai naafiq la kii du ko gëm yàlla parce que ci lay commencé reculer parce que affaire bi du ko ko jaral xoolal saxaaba ya السابقون السابقون الذين قاسوا قصب السبق في كل شيء nga xam ni da nga ci gis waa joo xam ni daj na ci ay fitna loo xam ni yàlla rek mooy ki ko xam kii dañ koy bàyyi ba mu naaj ñu di ko diri ci naaj wi ak naaj wa ni mu tàngee nga xam ni boo tegoon kittal léegi ci kaw doj wi teg képp mel mu mu ñaru ko léegi ñu koy diri ba yaram wi futta ko toj kookaay bi laal kii dañ koy jël di ko séndal li ñuy tuddee guutambaay jàppoo ko dem ba ca taal ba di ko fa séndal taal bi di ko lakk xam nga booy séndal dara du la lakk-lakk bu lay bu lay bu lay yàq yàqate sa yaram wi waaye day lakk-lakk bu lay gaañ ñu koy séndal tiimale ko tàkk-tàkk bi yem ci yaram bi moo tax Omar ibn al-Khattab su ba su su yëgaan faiblesse bokk na ci lim daan def mooy xabaab kaay ubbil ma sa gannaaw gi ma xool li ci ne ndax sama ngëm yàlla dooleel allahu akbar ay tut la defoon ay dànk xabaab ibn al-Arab ay dànk la affaire bi defoon ndax rek dànk yi nit yooyu yëpp ñun ñu di ko muñ am na ci ñoo xam ne yegg nañ ci allahu akbar dellu ci ak isaaba fi tamyiz saxaaba ay téeméeri téeméeri saxaaba yoo nga xamante ni ku ma ci tudd turam kenn ci yéen du ko xam lu tax ndeysaan dee nañ ca dégguñu ca ba muy metti lañ dee woon ñoom fekkee wuñ sax neexit bi al imam ibn xajar dafa taalal fekk dëgg al isaaba fi tamyiz saxaaba kuy saxaaba ku dul saxaaba gis nga li ngay xam tey boo nee boo nee boo nee ab Osman boo nee ibni Affan ibni Mas'ud rek jeexal nga boo demee daanaka mën na faa lim lu mat juróom-ñaar fukki Osman saxaaba boo lim li ma ne ci ay tut ñu bari ñoo xam xamoo su leen sax am na ñoo xam ne dee nañ ca jamonoy fitna yo ñii rey nañ leen ñii yeew nañ leen ba ñu dee ak ñii ñii xiifal nañ leen am na ci benn saxaaba ne ne wallahi dem nañ ba xobi garab lañ doon lekk ku dem woon ak li ngay génn ak li fas di génne ak gileem ñoo nuroo Fatima binti Muhammad xam ngeen dafa xiibanoon ahlu siyar dañuy wax ne xiibanaayam googu mi ngi ko jëlee woon ca loola xam ngeen toog na ñetti at moo tax moo déggee ambaar góor rek mu ne ah sëdiyee sëdiyee maam yaa ko tàmbale woon sëdiyee ñooñu ñoo ko njëkk a def dañu embargo yonent beeg ay saxaabaam buñ la fekkee ca teen ba bul dun la yen boo ñu fekkee ci teen doon dun doonu yen bu ñu ngéntee bul ñëw bu ñu boo xewlee duñ ñëw soxla bu sa kër dee tàkk suñu yoon néwti buñ la dee fitnaal sama yoon néwti séquñu dara nuyoo sax séquñu ko demal ma dem ah ñun suñu marchandise ku ko yor di ko jaay waa kër Mouhamad buñ dikkee buñ leen jaay ñun buñ demee ñoom buñ jënd seen marché ndax nañ lamb parce que ñoo leen fi ëpp xoolal lii lim mettee mbokk yi loolu lépp ñu di ko muñ affaire bi métti lool am saxaaba yu bëri yoo xam ne dee nañ ca lool ah wala du mul mu xira bandi bu bon bi jamono joo xam ne jullit ñaa ngi lekk ay xobi garab pépp lay jël dugub dugub yi suuf na defar ci paan ñëw ba tiim jullit ñu woo fas wi um umaya umaya tam ñu xalaat moom la yonent bi rey sallallahu alayhi wa sallam ñëw jël paan fépp bi teg ko xam nga li gën a métti mooy fekk ku xiif bay mat ay baaraamam ngay lekk ci kanamam te naa ko duma la may mu jël fépp mi teg ko tey fas wi lekkal ba suur lekkal ba suur te boo suuree fas wi lay war rey la yow Muhammad yonent bi ne ko ana qaatiluka insha allah bal kay man maa lay rey man moo tax moom kot la yonent bi rey ci loxol boppam sallallahu alayhi wa sallam kooku kooku kooku moo ñàkk cër dëgg dëgg yonent bi ni mu bëree yërmaande ah ak ni mu bëgg nit ñi ñëw ku mu rey ci loxol boppam toskare ñeel na la fi dunya qabla al axira gis nga yooyu ay métit abu talib li muy baax baax baax baax baax baax te dundug yonente bi saa sallam ba tax mu dee tàgg bokk na ci ñi leen doon dimbali heureusement fekk xadija amoon na alal abu bakrin kadalik xoolal coono bi daj dem màkk dem dem xabas dellu si xool mitit yooyu am na saxaaba yoo xam ne ci yoon bi lañ dee na xiif am na ñoo xamante ne xabasa lañ dee na xiif am ñoo xam ne seen ndëgër laay yegg si ba dañoo far mursal abdullah ibn jahsh fala murtad génn ci islam ila axiri fitna yu métti moo tax ngëm wax ko yomb na lool waaye fas ko jafe na sunu borom mu ni fa ida usiyat illah jaala fitnat annaasi ka adabillah da jël fitna yi ko nit ñi teg teg ko comme mbugalum yàlla ngandal ko bul ko faale ku yàlla namm ci moom yiw faw mu mosal ko ay natt yunti yàlla bi nee na mbirum dina lépp a neex bu amee lu baax mu sant ñu bindal ko tiyaaba su amee safaan lu muñ ñu bindal ko tiyaaba yent yàlla bi nee na ki nga xam ni yàlla tegu ko ay natt bu ñëwee àllaaxira fekk yàlla y xisaab ka yàlla teg ay natt tiyaaba yañ koy jox nam baree day mbébét law qurriba jilduhu bil maqarid day mbébét naan aka neexoon ñu delloo ma ci àddina jël rabb bi xoot ci sama yaram bi kii lu mu wax ne lan la mu ne ahan kay xam naa li may wax kay loolu ci déglu mu ne ngir ñu fay ma tiyaaba ju doy ni ji ñuy fay muñkat yi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri xisaab sunu borom mu ni ah wala in jaa waaye su dikkee nasrum min al min rabbik koo xam ne bu mettee rek mu arrière génn ci bu mettee rek mu daw bu neexee mu dal di ñëw bu mettee mu dem yoonam di koy naafeq ngoog wala in jaa bu dikkee nasrum ndimbal min rabbik bàyyi ko sa borom la yaqulunna dañuy wax naan inna kunna maakum nga gis gars yi commencé nag moom kay sunu lislaam ji moom kay sunu nangam ji moom kay sunu jihaad ji waaw moom mi ngi bokk parce que màng mi ñëw na affaire yi neex na waaw jàkka ji pare na mokket nan ko nangam waaye ba muy taw kenn du ko gis ba ñuy sàggan jàkka ji kenn du ko gis bi jàkka ji nekk mbaar moo xam ne saa da ngay julli sa way sëgg fii di bëgg a dee ndax kenn du ko gis ba mu neexee mu doog a yegg si genre yu mel noonu bi affaire bi metti kenn gis ko mu dem ba mu neex muy doog a ñëw sunu borom mu ni ah gars yi dañuy wax inna ma ak yéen ñoo ko bokkoon mooy naa fee xëy na wax rek bu jullit ñi amee gañaay ñu ne kaa ñun kat ñun ñoo ñun ak yéen ñoo ko bokk waaye bu fekkente ni gars yi kat dañoo nar a dem kat dañu leen a gañe inna buyutana awra wa ma hiya bi awra ci suratul ahzab fekk in yuriduna illa firara dañoo bëgg a daw rek sunu borom mu ni awalaysa allahu xanaa du yàlla day mooy ki nga xam ni bi aalama mooy ki gën a xam bi ma fi suduril alamina li nekk xolu dën dënnu jaam yi waxoon kay nit ki li muy wax man li ma leen di wax bu ma ko gëmee bu ma ko gëmul man yàlla moo ko gën a xam yàlla soo tala kenn ku ne ci jaam ni li muy wax bu ko gëmee bu ko gëmul yàlla moom aalam bi ma fi suduril alamin
moo gën a xam ne li ci dënnu jaam ñi moo tax booy nax naxal nit ñi doo nax sa borom subhanahu wa taala nax nit ñi sax daanaka nag wax dëgg yàlla nax sa bopp la ndax séqoo koog ñoom sa borom nga ko séqal te seen diggantee gën a yàgg
sunu borom mu ni wala yaalamanna allahu sunu borom dana ñu seggal ba nu xam li ñu tuddee garbala sunnatul garbala ah wal ibtila min sunnatil garbala ah wala min sunnatil garbala natt ci sunnay tame yi la bokk nga xam ne bu ñu tamee rek ñu sew ñëpp ndeysaan wadd ci suuf waaye gaa yu dëgër yi boo doon tame fii ba déwén ca kaw tame ba la ñuy toog rek duñ wadd ah loolu mooy li yamise allahu alxabitha min altayib yàlla day segg day trier li ñu tuddee trier foo yi génn paquet yi génn yëpp quantité yi génn qualité yi des
sunu borom mu ni wala yaalamanna allahu yàlla danañu xamal ba ñu xam ñun sunu borom xam na de waaye ñun lay xamal alladina gaa ñi nga xam ne amanu ñooy ñi gëm te dëggu wala yaalaman na sunu borom xam na moom danañu xamal ñun ñu gis almunafiqina gaa ñi nga xam ne ñooy naafiqi ñooy ñi nga xamante ni ay cikkiñ cakkañ la di wala fi naan cikkiñ cakkañ cikkiñ cakkañ mooy naafiq mooy koo xam ne weexoo ñuuloo mu zabzabina bayna dalik faroo fii faroo fee ah tey nga xonq suba nga ñuul tey nga nekk julli suba nga nekk bu yéefar far fii far fële teg tànk bi teg ko fële loolu mooy nifaaq yal na yàlla boolañ ci musal nu ngi ñaan sunu borom mu war ñu defal tawfiq comme tey dañoo teel a tàmpari xam naa foofu la ñuy yem di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ne wala axira yal na sunu borom nangul ñu baaqiyaat saalihaat yi ak saalihaat al amaal yi yal na sunu borom nangul ñu suñu koor ak suñuy xiyaam wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain